baaban li ab bunta fil faraa'id ci masalay miraas maanaam lu aju ci ko fi bàyyi ko alalam nañ koy séddalee ñu ko yoon jox loolu mooy miraas mooy addis bi daa waxam ne ñu doon jàng miraas te jàngalewaat ko ndax day dana dem ba yàlla ñëpp xam-xam ñëpp yonent te ñëpp xam-xam ba nga xam ne ñu waa danañ jëlee ci maanaam ku leen caate waaye na ñu koy seen koy defee mel na jafe jafewul noonu bu fekkee ne xaritam day fukk dañu wax naa ñi doon ci góor fukk la yoo xam ne boo ko feccee muy fukk ak juróom lu ñu ràññee mooy téere bi fukk la waaye boo ko taqalee mu nekk fukk ak juróom fukk ak juróom ñooñu rek ñu war doon ci góor lu war si ñooñu ci lislaam góor gu génn fukk ak juróom rek du doon al ibnu doom bu góor waa banal ibni ak doom bu góori doom bu góor daa tàmbalee ci doom bu góor teg ca sët bu góor bu bàyyi ko ci doom bu góor waaw kon doom bu góor wàññi ko teg ca doom bu góor bi nga xam ne sa doom bu góor ko jur mooy rek sa sët bu góor bi nga xam ne sa doom bu góor ko jur mu ñaar wa in safala ak doonte suufe woon na doonte sëtaat la baa muy sëtaataat waaye digganteem ak maam bi mu doon ku ko gën a jege nekk rek du ko tee dam wala abu ak baay baay day doon doom ja ba tax ñu wàññi ko wala jadd ak maam mu góor bil abi ñeel wàllu baay wa in xala ak doom te kawe woon maanaam boo wàññee baay da nga cee teg maam bi góor bi jur baay waaw bu fekkee ne baay nekk fi maam bi góor jur baay day doon su ko defee nag maam bi góor boobu mën naa nekk sax maamaat wala maamaataat li ko nga xam diggante ne sëtam bi ku gën a jege doxu fi rek dana mën a doon maanaam kon mooy doon loolu mooy in xalaay bi wan axu ak mbokk mu góor mbokk mu góor mu ñett la mbokk mu góor mi nga bokkal ndey ak mi nga bokkal baay ak mi nga bokkal ndey baay kon loolu ñett la waaye bunul axi ak doom ju góor yi mbokk mu góor dafa am yaari mbokk mu góor yoo wax léegi yoo xam ne seen doom day doon maanaam sa mbokk mu góor mi nga bokkal ndey baay doomam day doon sa mbokk mu góor mi nga bokkal baay dong ba tey doomam day doon mu des nag sa mbokk mu góor mi nga bokkal yaay dong kooku moom doom du doom wa in baaxul ak doom ci sori woon na bu ko see doon doom bokk rek moom lu mu sori sori waaye ku gën a jege amul rek moom dana doon wal xam ak bàyyi tax ko wax bàyyi tax waaye mooy bàyyi bu ndaw bàyyi tax mooy ki bokk ak sa bàyyi ndoo ak bàyyi dana doon ak ak ki bokk ak sa bàyyi benn bàyyi dana doon nga génn kenn nag ki nga xam ne mook sa bàyyi ndey dong lañ bokk waaw kooku moom sa bàyyi bu ndaw la waaye dina doon waaye bu mel xam ne ak doomi bàyyi tax maanaam ñaari bàyyi ndaw yi nga wax léegi dangay tudd rek seeni doom nga tudd léegi sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk benn bàyyi ñaar ñooñu nag nga wax seen doom boo fa nekkul rek seen doomay doom waaw xam ne nga nag bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ndey dong lañ bokk du doon kon doom mu du doon gàttal ko um baaxul ak doom te sore woon na doom te sore woon na mooy bu xasee doon doomu bàyyi bu ndaw rek moom te gisuñu koo gën a jege ci ñu war a doon rek moom mooy doon waaye sëy bi ak jëkkër jëkkër day doon soxna jabaram moo tax ñu ko yónni waale ci loolu ñu doon waaye mooy lan ñaamati ak góor gu xëy la ngor góor gu xëy la ngor mooy ku goreelu jaam dañu lay jaam amee soo goreelee jaam te jaam nag goreel dañu ko war a doon mbaa am na ko waaye du jeexal kon desoo yaa koy jël pour mu jeex bu ko amul yaay doon lépp kon ñu wàññil la ci benn benn ñu war a doon ci góor rek mu ngi doon fukk juróom te bindal nañ ko ci kayit mën ngaa wax laaj ñi ko amoon ci kayit ñu doyal nga nga xool foofu mokkal ko wax nga wax ñu doon ci góor fukk la yoo xam ne boo ko fekk yéen fukk juróom doom ji góor doom ji góor doom ji góor bàyyi maam ji góor jigéen bàyyi mbokk mi nga bokkal ndey mbokk mi nga bokkal bàyyi mbokk mi nga bokkal ndey bàyyi doomu mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi yéen a bokk ndey ak bàyyi ak doomu mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi yéen a bokk benn bàyyi ak sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk ndey ak bàyyi ak sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk bàyyi doom ak sa doomu baay bu ndaw bi nga xam ne seen ñaari baay yoo bokk ndey ak bàyyi ak sa doomu baay bu ndaw bi nga xam ne seen ñaari baay ñoo bokk benn bàyyi ak jëkkër ak góor gu xëy la ngox wala boo ko wàññi def ko juróom wala wala yëritu di doon mi ne misaay ci jigéen ñi xëy di fàttali lu mu juróom ñaar maanaam jigéen ñi juróom-ñaar moo ci doon waaye loolu itam boo ko fekkee muy fukk ay binti doom bu jigéenu ndigg wa bintil ibni ak doom bu jigéenu doom bu góor wal ummi ak yaay wal jaddati ak maam mu jigéen wal uxti ak mbokk mu jigéen wal sawjati ak soxna wa mawlaati niamati ak jigéen ju xéewli ngor maanaam soo ko yemee da nga wax ni doom bu jigéen teg ca doom bu jigéen bu bàyyi ko ci doom bu góor maanaam daal sa sët bu jigéen bi nga xam ne sa doom bu góor a ko jëf ko defee nga teg yaay ci ñett nga teg ci maam mu jigéen waaye ñaar la maam mu jigéen mi jur ndey day doon maam mu jigéen mi jur bàyyi day doon kon loolu ñaar yëpp nga yem kon loolu moo koy def juróom mbokk itam nga ne mbokk mu jigéen mi nga bokkoon ndey doon ak mi nga bokkoon bàyyi ak mi nga bokkoon ndey bàyyi muy ñett kon juróom ñett nga teg ci soxna xam nga soxna muy jabar day doon jëkkër juróom ñeent ko defee nag nga teg ci jigéen ci goroon ab jaam jigéen ju xewle ngor mooy jigéen jamono jaam amee bu jigéen goreelee kam goreel bu faatoo te amul kenn mu ko war a doon ci askan moom na ko goreeloon moo koy doon fekkee moom am duñ jeex ak duñ jeex alal ba tey moo jël des wa kon fukk yi mooy ñu war a doon ci jigéen koo xam ne limuñu ko ci jigéen ñi rek ci fukk ñi xamal ni du doon koo xam ne limuñu ko ci góor ñi ci fukk yi juróom rek du doon ñu ne nag léegi ci nañu doon ne mooy njëkk wax mooy doon ak jëkkër jabar ndax moo ci gën a gàtt yomb cee takk bañ ci yomb takk fa miraasu sëy ji doon ak jëkkër dina sëy ji tukkee ci jabar in lan toppaliku ndeen bàyyi bàyyiwut wala dan doom wala wala dab nin du caa génn doomi doom am mis foo jëm yàlla nga fa in tarakan dan bàyyi ne wala dan doom aw wala dab nin wala doomi doom mu ngi tukkee ci jëkkëram jile aw min xëy yi wala bàyyi koo ci tudul moom donte sax njaaloo la fa loxo ñeel na jëkkëram ji arrubuxu kaar waaw maanaam góor mu jëkkër li mën a doon ci soxnaam ñaar dong la bu soxnaam faatoo bu soxnaam ci faatu bàyyi fi doom bàyyi fi sët mooy doomu doom dañ seet nag ba xam doom bi moom mu ne ko amee mbaa yoon jëkkër mbaa sax njaaloo moom daal xool nga waaye jabaram faatu na waaye jabaram ji faatu bàyyi fi doom bàyyi fi sët daal moom kon jëkkëram ji mooyoon genn wàll nga waaye jëpp boo ko boole xaaj ci digg ba moom mooyoon benn xaaj bi yoon jëkkër ji su fekkee jabaram ji faatu nag bàyyi na fi doom bàyyi bàyyi fi sët nag doom ci doom doom ci doomu njaalo la woon sax amu ko woon ci yoon sax moom jigéen ji kon jëkkëram bi ko yoroon ba mu faatoo ci loxoom kaar la yam kaar mi ngi bàyyi ko ci robu mi ngi bàyyi ko arbaxat yi fi ñeent maanaam alal ji boo ko defee ñeenti xaaj jëm képp bon la cay tege bon la cay moom waaw kon robu mooy doonu jëkkër bu fekkee ni soxna ci faatu bàyyi na doom bàyyi bàyyi sët lu yàgg yàgg nag loolu di soppi ko moom ci doonu jëkkër mënta weesu yooyu yaar wa taris dana doon ci yow moom soxna min ko ci jëkkër arrubuha kaar in lam yakun doon nekkut loxoo du ñeel jëkkëram ji faatu wala dum doom wala wala bépp min du caa génn doomi doom fa in kaana doon nekk na loxoo du ñeel jëkkëram ji faatu wala dum doom aw wala bépp min wala doomi doom min haa tukkee ci soxna si aw min xëylihaa wala tukkee ci keneen waaye doon yoon la rek waaw fa laxaa kon ñeel na soxna si ak samanu saman maanaam soxna muy jabar li mu doon ci jëkkëram yaar mën a ko weesu mooy bu jëkkëram faatoo te jëkkëram ji faatu bayu fi doom bayu fi sët waaw kon su boobaa moom soxna si foofu lay ëppalee dana amub kaar ab kaar la yam mooy boo defee alal jëkkër ji ñeenti xaaj moom soxna si ban la cay teg ndax jëkkëram ji faatu bayu fi doom bayu fi sët bu fekkee nag jëkkëram ji faatu bàyyi na fi doom mbaam bàyyi fi sët nag kooku nag moom doomu njaaloo génn bu fekkee jëkkëram bàyyi na fi doom waaye doom ji doon doom yoon du yàqal jigéen ji moom kaar waaye bu fekkee ne jëkkëram ji faatu bàyyi na fi doom ndaam bàyyi fi sët ci wàllu yoon doom ji doom yoon la waaw su boobaa kon léegi moom soxna ci foofu la gën a néewlee sumun lay am sumun mooy nga sumun mooy nga def juróomati xaaj dañu boole mboolem alal jëkkëram bàyyi def ko juróomati xaaj mu teg ca benn waaw bu dee doom soxna moom dong lay jël bu dee ay soxna itam ñu séddoo ko rek ci digg wax moo rëbb bi mi suñ mi suñ bi nga jël bu dee doom soxna moom lay jël bu dee ay soxna itam dañ koy séddoo ci digg ba rek te loolu moo doon soxna mooy doon soppiku mukk mukk ci miraas noonu la mel dañoo ci yaay waaye miraas yi indi dana ci yaay liit ñi xaa tukkee ci doom liit ñi xaa bàyyi rafet yi liit ñi xaa tukkee ci doom bu góor moo tax ne boo xam nim wala di xaa rek day gën a noppale wala day yóbbaale doom bu góor doom bu jigéen waaye fu mu toll xas na teqale liit ñi xaa te amu ci woon solo kon dana ci yaay ci doom rek ak fulus mooy fulus il la ñëpp rek ndem doom ji bàyyi wala dem doom aw wala dëkk yi wala doomu doom ayit nañu wala ñaar ñu ci xawati ci mbokk maakaay loolu luñ mën doon fa saaxiban topp lu ko ëpp dafa wax ne maanaam koo xam ne jigéen joo xam ne doom daa faatu bor nga xaajale doom ji faatu góor la mbaa jigéen su fekkee ne rek léegi doom jooju faatu daal bàyyi fi doom bàyyi fi sët moom mi yaayam foofu lay ëppalee waaye da ngay sart nag doom ji faatu bàyyi fi doom bàyyi fi sët bàyyi fi mat ñaari bokk du faat lu mu jox bàyyi fi mat ñaari bokk loolu doom du fa nekk sët du fa nekk waaye lu mat ñaari bokk dafay nekk yëpp yëpp dañee na nga xam ne doom nekku fi sët nekku fi lu mat ñaari bokk nekku fi nag waaw kay foofu la waaye war a doon ne bi ëpp solo foofu la koy jële mooy sulus sulus ñu ngi bàyyi ko salaasatu ñett salaasatu ñett ko defee bu ko defee ñetti xaaj mu tegu ci doon loolu mooy doon waaye su fekkoon ne nag léegi doom amoon na wala sët amoon na wala lu mat ñaari bokk amoon na su boobaa yaay su dus lay am su dus da ko ci kanam su dus mooy ab juróom benneel alal gi boo ko defee juróom benn saam mu tegu ci benn waaw dana fi jaarale yaari jëfale yoo xam nag moom dañ koy teqale ci miraas nga dañ cee juum ndax léeg-léeg moom te boo too juum te boo te boo moytoo juum ci boo yeexee juum ci mooy illaa fii farida taw ni dara ci yaari masala te mooy fii say jotin ci soxna wa abawayni ak ñaari waajur fii say jotin ñeel na soxna sa arbahu kaar dañu ummi ñeel na yaay ba sulusuma sulusub la nga xam ne baqee des na wamaa la nga xam ne baqee des na lu abi ñeel na waay benn benn masala bi mooy ci faatu daa doon góor bàyyi fi soxnaam ak ndeyam ak bàyyam dagan bàyyi na soxnaam ndey ak bàyyi dooroon kuy def ay saam ñeenti saam lay doon ndax soxna si war a tegg rëbbu boo defee ñeent mu tegg benn muy wàllam léegi nag bu soxna si teggee benn nañu xool ñett saam moo des yoo xam ne ñett saam yi ñëwee moo te ndey ak bàyyi des te ci lay góor ci lay jigéen ñu koy far séddoo rek bàyyi di jël ñaar ñi yaay jël benn bi nga xam ne yaay li mu jël foofu boo ko seetloo da nga koy tuddee sulu suma baq ya maanaam sulu su bi des gannaaw boo génnee kërub soxna ndax ñetta des mu teg ci benn gannaaw bu soxna teggee benn ñetta des mu teg ci benn kon loolu mooy sulu suma baq ya waaye boo ko seetloo ab kaar rek la fi toll ñun moo ko soxna si ñoo toll la képp yaay ak soxna si ñoo toll donc ñu ko def ñeenti sàmm soxna si tegg benn yaay tegg benn bàyyi bi moom fi mu toll moo jël genn wàll alal ji dañ ko defee ñeent moom moo jël ñaar ñi benn misalaa nga am boo xam ne boo ko seetloo yaay bi bayul faatu na te doom ji faatu bayul doom bayul sët bayul lu mat ñaari bokk taxul yaay am sulus da nga am sulus suma baqiya sulus suma baqiya boo xam ne boo ko seetloo sax mën nga mën nga ko waay rëbbu ndax moom soxna si ñoo tollal dong ñeent sàll mu teg ci benn rek nit soxna si tegee benn ba nga masal baa ko boo fi say ak ci jëkkër wa aboo ñu ñaari waajur fa ñu say ji ñeel na jëkkër bi am ni suuf genn wàll ga moom ñu ñeel na yaay ja sulus sulus suma sulus la nga xam ne baqiya des na wala la nga xam ne baqiya des na ñu aboo ñeel na bàyyi masalam ñaareel na jigéen faatu bàyyi fi jëkkër ak ndey bàyyi jëkkëram ndey bàyyi dañ koy far def juróom benn saam bu ko def juróom benn saam dagg ñett ñu jox jëkkër ndax li waram genn wàll dañu doom amut sut amut jëkkër genn wàll waram kon juróom benn saam boo ko def alal ji ñett ñu lañ ko war a jox ba tey mu di faat ñett ñett yi da ngay wax ne léegi ndeyam ndey bàyyi la ñu woon ci ki faatu te koy góor kon na góor bi di bàyyi jël ñaar bi ki yaay jël tegu benn bi xam dañu woowe li li yaay jël foofu dañ koy woowe suñu suma baqiya maanaam suñu su la des boo génnee cëru jëkkër ji ba noppi na tagas mu teg ci benn kon loolu mooy sulu suma baqi waaye li mu jël ab sudus la ab juróom benneel la da nga am saam saam juróom benn saam benn dong la ci teg waaye fi mu toll loolu dañ koy woowee sulu suma baqi waaye ci dëgg dëgg bi ab sudus la loolu na falam ñaareel mi nga xam ne boo ko seetloo moom mi ndey doom ji góor faatu na bayoo fi doom bayoo fi sët bayoo fi lu mat ñaari bokk te taxu ko wàllu wat sulus sulu suma baqi la am te boo ko seetloo dëgg dëgg muy sudus ab juróom benneel ñaari ma falam yi dal ci juum kon mi ngi noonu benn bi ci faatu day jigéen bàyyi jëkkër ndey bàyyi benn ci faat day góor bàyyi soxna ndey bàyyi yooyu yaari masal la yoo xam ne ki ñu wax ndey doom day faatu tey du fi bàyyi doom du fi bàyyi sët du fi bàyyi lu mat ñaari bokk te du ko taam sulus mat sulus ma baq ya lay am foofu wala xaal ñel na waaye nag fii xëy di saale ko ci lu dul loolu ak sulusu sulus illaa maam la nga xam ne naq saxaa wàññi na ko ko alxamlu sompoo ga daa soo yaari masala yi moom te li nga wax xëppat nga xam ne yaay ji bu doomam faatoo bayoo fi doom bayoo fi sët bayoo fi lu mat ñaari bokk te ñaari masala yi nga yor ci boole ji su boobaa kon yaay dana am sulus mooy nga def ko ñetti xaaj mu tegu benn loolee la la tax man ko rek mooy mooy sompoo sompoo mooy ni yàlla waxee ne ne diw am nangam ne diw am nangam buñ ko toppee am ko manqué loolu bu fekkoon ne tey jëkkër dafay nekk ñu mel ne jëkkër nekk fi ak man mbokk ma jigéen mu bokk ci faatu ndey ak baay ak mën yaay am na misaal ma ci gaaw ci gaaw mooy boo defee juróom benn saam jëkkër daa war a tegu ñett muy jenn wàll ki bokk moom ndey ak baay tey jigéen da nga ko bàyyi ci kanam li si fi war a doon moom it war a tegu ñett xam nga kon moom kenn kon tegu ñett rek mu daal di jeex te fi mu toll yaay amagul dara te yaay li nga waxee itam sulus la war a am waaw ndax gis nga ne jëkkër dafa nekk ak benn mbokk mu jigéen waaye doom nekk fi sët nekk fi lu mat ñaari bokk nekk fi benn mbokk moo fi nekk fu mel noonu day sompoo mooy loolu faaw nga def ko juróom ñett ngay bàyyi juróom benn saam yi nga defoon def ko juróom ñetti saam boo ko defee juróom ñetti saam nag te ñett ñi mooy doon jëkkër wecc genn wàll donte matu ko ñett yooyu itam doon mbokk mu jigéen bokkam ñu day bàyyi xaw na lu sif mooy itam te doon ko ñaar ya doon sulus bi nga xam ne moom la yaay ji war a am nga teg nag laa am yokkoon ba rek dafa nekk li may tiñ wala néew wala benn doom aw wala bépp ñu wala doomu doom alif naan wala ñaar mooy ixwati ci ay mbokk maakaanaa lu mën di doon falaxaa kon ñeel na yaay ak sudus a sudus ci nay fiñ ci waxtu woowee loolu daa ko teeloon wax te asiwutoon foofu mooy daa bëgg wax ne bu fekkee ne nag léegi li nga tënkee woon dañ na mooy dama ne woon doom amut sët amut lu mat ñaari bokk amut léegi nag bu doom amee mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk waaw foofu la yaay di jëlee cëram bi gën a woyof mooy sudus bàyyi ko si tëgg juróom benn nga def juróom benn saam mu tege ci benn kon dana yaay ci lislaam boo koy tànk boo koy tënk loo nga wax danga wax ni moom ñaar rek sulus ñetti xaaj mu tege benn mbaa sulus juróom benn xaaj mu tege benn fa mu doon ne sulus cër bi gën a rëy mooy doom amut sët amut lu ma ñaari bokk amut fa mu doon ne cër ba gën a néew mooy doom am na mbaa sët am na mbaa lu mat ñaari bokk am na te yaari masala yi nga génne fii nag dañ koo fàtte foo toll jàpp ko ci sa xel waaye muy raasul abi dana dana bàyyi lu ne la di tukkee ci doomam wari sa mu doon almaal alal ji kullahu léppam waaye faral bi def na dogal la xoo ñeel bàyyi naxal wala di bu ànd ak doom ak zakari ju góor wala di ibni wala doomi doom ak sudus ak sudus fa lam yakun ndem nekkul la xoo di ko ñeel wala wun doom wala wala dup nim du jaagéene doomi doom farida kon farataaleef maanaam kon dogaleef li ëpp ñaar baay ak sudus sudus wa awtee te joxeef man ka nga xam ne sharika fa bokkaale naa moom min ahli sihaana ci ñoom cëree sihaanahum seeni cër su ma kaana topp nag loxo di ko ñeel moom baay maa la nga xam ne baqee des na maanaam dana bàyyi ci lislaam mën nga koo takk boo mënee jàpp dara mooy da nga wax ne dana bàyyi ci lislaam ñetti xaaj la bu ko gën mukk mooy bu fekkee ne moom mi faatu bàyyi dong la fi bàyyi ci ko war a doon mboolem ñi nga liggéey ci ñu war a doon kenn kenn nekku fi su boobaa léegi mbaa bu ñu fekkee bàyyi war nañu daaneel waaw su boobaa kon léegi jàppal ne bàyyi moom alal jëpp rek jërë miraas dañ koy wax ne ko daal yaa sa doom ji yaayam alalam bu xam ne fa mu tàmbale fa ñoom jërë koo miraasal jërë muy woyu bu sëriñ bu koy miraas benn ñaareel mooy mu nekk fekk doom bu góor mbaa sët bu góor nga xam ne doom ji faatu bàyyi na fa doom bu góor mbaa bàyyi na fa sët bu góor dañu wax bàyyi na ko yow ab subus dong nga mën a am juróom benn saam mu ko defee daal nga tegi doon waaye foofu dong ngay am du ko ëpp du ko yees loolu mooy tomb ñaareel bi mu des benn maanaam mooy bàyyi nekk na fi ak yeneen waramu cër yoo xam ne doom bu góor amu ci sët bu góor amu ci yeneen waramu cër yoo xam ne rek xëy na alal jeex xëy na loolu jeex foofu dañ koy jox sudus mu téye bu fekkee ne des na yokkal ko desoo bu fekkee ne desut mu yem ci sudus bi ñu ko joxoon kon loolu rek moo mën a am bu ci tey bu fekkoon ne bàyyi dafay nekk ak soxna faaw mu des ndax xam nga ne soxna moom du yee jamono du yee suru boobu kon soo joxoon bàyyi sudus mu téye itam soxna moom bu tegee rëbbu lay desaat bàyyi nga koy doole bu fekkoon ne bàyyi dafay nekk ak yaay ak i mbokk boole ci bu fekkoon yaay dafay nekk lu mat ñaari bokk nekk fi boole ci bu neexee boole waale ci soxna mi nga wax léegi kon soxna moom day teg rëbbu waaw bu ko defee yaay itam léegi li mu bokk li nga wax nekk na fi dana tax du mën a weer sudus mooy jamono kon boo joxee bàyyi suddus te nga dolliwaat ko ndax faaw mu des boo ci génnee suddus bi yaay ji war a am ak rob bi soxna si war a am du ko tee desaat waaye kon nag miraasum bàyyi ngoog fekkee ni ko takk la rek mën na koo takk noonu bu gaaw a gaaw ñett tomb yooyu mën na koo génn ci miraas kon noonu daal jàll ci miraasun doom ji góor ak doom ji jigéen ak sët nag loolu ci lay bëgg a dugg te nag say aslaf waa miraasu wala di donop doom ak dakkaru ju góor jami xul maali moom mboolem alal ja in kaana moom nekk na wax dafa di moom dong nee na doom ji góor moom bu fekkee ne bàyyam moom dong la bàyyi wala yaayam xam ne moom dong la bàyyi kenn ko war a doon amut kooku amul miraas ñu ko wax ne ko rek boo fexee ba xam fi alal ji tàmbalee fi ñu am rek baax na waaw boo ngay woyub sëriñ mu la koy miraasal yow rek yaa moom lépp aw ya xusu wala muy jël maa la nga xam ne baqee des na baax da sihaami man ci gannaaw ciri ka nga xam ne maxoo ànd naag moom min zawjatin ci soxna wa abawayn ak ñaari waajur aw jaddin wala maam ju góor aw jaddatin wala maam mu jigéen dafa wax ne doom bu góor nag bu fi nekkee borom cër boo ko waxal moom dara la may bàyyi borom cër yi génn rek mu jël la ca des bu ci boobu fi doom bu góor nekkee soxna nga daal jox soxna rek sunuñ ak juróom-ñetteel doom bu góor jël la ca des bu fi soxna nekkee ndey ak bàyyi ñu aw abooy ni yore al juróom-benni saam bu ko def juróom-benni saam ndey ak bàyyi ku ne tegg benn muy sudus ñoom sudus mën nga ko wees ndax doom bu góor am na ku nekk rek benn lay tegg muy sudus ñeent ci des yëpp nga jox ko doom bu góor bu fi maam jigéen nekkee ak doom jigéen bi nga wax ba tey juróom benn saam nga koy def maam jigéen benn lay am muy sudus moo doon wàllam juróomi saam yëpp doom jigéen jël ko ak jadit wala maamu jigéen moom it noonu la maamu jigéen moom du wees sudus benn yoon su fi nekkee doom jigéen ngay def am lépp juróom benn saam ko defee maamu jigéen mu tegu ci benn muy sudus juróomi des yëpp nga jox ko doom jigéen li nga wax ne benn doomu góor moo fi nekk waaye bu fi nekkoon ak beneen doomu góor waaye jigéen dafa ci nga xam ne góor rek la ba tey ñu doon lay doon gannaaw bu ñu nga wax génnee seen i cër la def rek moom nga seetlee doomi góor yi te ñamoo ci képp ndax ñoo tolloo di ay góor ñoo yem ñoo yem di góor fekkoon ne jigéen dafa na ci danga ko wax léegi da ngay bàyyi ba cër yi génn la des nag nga seddal leen ko te góor gi ñaar ci la jigéen ji nga xam ne góor gu ne da nga koy taxawal ñaari jëmm góor gu nekk da nga koy wàññi ñaar ngir bay saam saam saam yi toll noonu ba mu toll yem ca boobu nag ibni doom bu góor doom bu góor bi mel si léegi ibni nekk na ci wàccu gaaw doom bu góor isa la nekku ndem amit ibnu doom bu góor dafa wax ne su fekkee ne ci faatu bàyyi doom bu góor waaye bàyyi na sët bu góor kon sët bu góor boobu mooy wàcc doom bu góor nga xam ne bu fi nekkee moom dong jël alal yëpp bu nekkee borom cër bàyyi cër yi génn mu jël leso fa in kaara ndem am na ibnu doom bu góor léegi nekkul ak doom bu jigéen fa lu zakari kon ñeel na góor ga nit lu xasal unsayni kenn cërub ñaari jigéen nee na bu fekkee ne dafa am doom bu góor ak doom bu jigéen kon nee na lislaam dafa yemale wut cër yi góor gi day ñaari cëri jigéen ja nga xam ne kon ci saam yi da ngay jàpp góor gi mu ñaari jëmm yu taxaw ak jigéen ji nga jàpp ne kon ñetti jëmm moo fi nekk nga def alal gi ñetti saam ba defee ñetti saam nag góor gi mooy jël ñaar ñi jigéen jël benn la buñ fi nekkoon ne borom cër yi da ngay bàyyi ba cëri jigéen ba noppi la des na nga war koo def noonu def ko ñetti saam góor gi jël ñaar ñi jigéen jël benn la wa kazalika naka noonu fii kasratil baniina ci bari doom yu góor yi wal banaat yi ak doom yu jigéen yi wa qillatihim ak seenu néewaay yaritoona danañu doon ne kazalika naka noonu jamiihal maali mboolem alal ja aw maa wala la nga xam ne fadala des na minhu ci alal ja bax da man gannaaw ka nga xam ne sharikahum bokkaale naa ñoom min ahli sihaani ci ñoom cër ya nee na kat saa woo xam ne doom yi rax nañu rek di ay góor ak jigéen moom li ñu la wax mooy góor ga ñaar fele jigéen ñi boo ko fàttee bu fekkee ñoom doo nga fi nekk muy doom yi nga xam ne kenn dafa ci ko war a doon da ngay jot rek wàññi góor ñi jëm ji ne nga wàññi ko ñaari jëmm wàññi jigéen ñi kenn ku ne benn jëmm lii lim ba toll da nga def saami toll noonu ko defee góor ñi teg ñaar jigéen teg benn dong bu fekkee ne dañoo jax dañoo am borom cër yu fi nekk nag day fàtte génn cër yi ba noppi ba mu des doom yi nag ñu góor ak jigéen ñi nga wàññi leen rek fexe ba góor gu ne nga jàpp ko ñaari jëmm daal di saam saami toll noonu mooy jigéen ñi ko defee rek noonu lay doon mu ne loolu nag bu xasee rax rek noonu la donte sax léegi góor ñi daa bari jigéen ñi néew ni ki góor ñi mat nañ fukk jigéen doon benn wala jigéen ñi bari góor ñi néew ni ki jigéen ñi mat nañ fukk góor ñi doon benn ci doon dara bu xasee rax rek moom noonu lay doon moom faaw rek góor ñi mooy ñaar tele jigéen ñi te lu mu waxal nga koy defee boobu nag ibni doom bu góor ka ibni mu ngi nag doom bu góor fii xadami bi ci ñàkk doom bu góor fii naa ci la nga xam ne yarisu dana ko doon wa wax jabi ak la muy yiir waaw loolu dafa ne dafa ne baamu la dafa wax ne koo xam ne amul doom bu góor waaye bàyyi na sët bu góor sët bu góor bi war a doon mooy wecc doom bu góor lam daa doon lay doon ku doom bu góor daan yiir te doo doon doom sët bu góor mën a yiir ba tey doo doon dañ dem na ci buntu xiraati kanam waxal la ko ma nga ci kanam waaw loolu la wa miraasul bint dalub doom bu jigéen alwaahidatu bi benn am na suuf mooy genn wàll maanaam ku faat nag te lam bàyyi ci doom jigéen la amut jigéen góor jigéen rek la am te jigéen ji kenn dong la du ñaar mbaa ñett kenn rek la kon mel noonu genn wàll lay am boo defee alal bàyyam mbaa alal yaayam ji faatu ñëpp ñaari xaaj xaaj ca digg bari daal benn lañ koy jox ci genn wàll kon doom bu jigéen la walis na tey walis na tey bonut ñaari ñu jigéen ak sulusaani mooy sulusaani nee na bu fekkee moom ñu faatu te doomu jigéen dong la bàyyi góor raxu ci waaw ëpp na kenn mat na ñaar mbaa ñëpp ko dafa yàlla soob ñu baree ko su boobaa dañu am sulusaani sulusaani moom da ngay xam benn sulus def ko ñaari yoon muy sulusaani maanaam tey boo defee alal ñetti xaaj ñaari saan ya mooy sulusaani ndax boo ko defee ñetti xaaj benn xaaj mooy doon sulus sulus kon nag loolu boo jëlee ñaaram nag mooy doon sulusaani ne bu la ñetti jën tey ñaari jën yi mooy sulusaani boo jëlee sulusaani juróom-benn da ngay jàpp ne juróom-benn ñaar bu woob sulusam kon boo boolee ñeent mooy doon sulusaan juróom-benn loolu moom du ko fàtte bu dee ko calculé ci machine day day day day divisé par trois lu génn mooy doon benn sulus bu ko defee ñaar yoon mën nga multiplier deux mu daal doon sulusaan loolu bu ko defee loolu mën nga boole ko doomu jigéen doomu jigéen yi ñu te góor roxu ci da nga leen di séddale ñu séddale ko yem ko képp nag da nga ñëw ñëpp ak jigéen nañ kenn képpale sama wax fa in kafir na doon bari nañu it lam yu set na deefu leen dolli xale suñu seen it ñaari suuf ne xewan dara doom jigéen ñi moom luñ bari bari tax suusaan yi ñu dal leen ci dara suusaan daal la ñu woon seddoo ko yem ca képp waaye kenn du ca dal dara boobu nekk it ñu doom bu jigéen doom bu góor kal bint ni ñu mel ni doom bu jigéen yi dëgg isaa lam takku ndoom amut bintum doom bu jigéen dëgg maanaam koo xam ne bàyyee doom bu jigéen boo jiyal sa bopp waaye bàyyi nga sët bu jigéen sët bu jigéen boobu mooy yegg ci sa doom bu jigéen lam daa doon lay doon moom daa def lay def ba kasaalika naka noonu banaatuhu ay doomu jigéen kal banaati ñu ngi mel ni ay doomu jigéen digg fi xabalil banaati ci ñàkk ay doomu jigéen digg ba tey nee na bu fekkee ni amoo ay doomu jigéen waaye am nga ay sët yu jigéen kon ay sët yu jigéen yooyu ñëwee ci ay doomu jigéen xam ne suñu sonn nañu doon si boo ko yem ca ndaa wax benn bi wax lim bi rek wane na ñooyam ba in kaanat doon am na ibnatun doom bu jigéen dëgg boobu na tuub nañ ak doom bu jigéen doom bu góor ful ibnatun ñeel na doom bu jigéen dëgg ba ak nis fu genn wàll ba loolu it lafi ibnu ñeel na doom bu jigéen doom bu góor ba ak sudus su sudus danaama sulusé ni day matub ñaari sulusi ya nee na bu fekkoon ne moom ñu faatu daa bàyyi doom bu jigéen boo xam ne moo ko jural boppam ak koo xam ne sëtam bu jigéen la doom bu góor a ko jural bàyyi dafay nekkul waaye moom sët la kon nee na da nga koy def juróom benn saam boo ko defee juróom benn saam doom bu jigéen li nga xam ne moom la dëgg dëgg moom moo jël ñett yi muy genn wàll ndax xam ne juróom benn ñettay genn wàll bu ko defee nag ki nga xam ne ab sëtam la bu jigéen tegg benn dong muy sudus su kooku teggee sudus nag kon alal ji sulusaani du génn ndax ne loon ndax ne loon juróom benn ñeent moo def sulusaani kon ne bu cee teggee ñett sët bu tegg benn kon loolu mooy tamaam sulusaani dana des ñaar nag ñaareel moom ci miraas dina dana dana war a laaj ku fi des te xaaru des mu jox ko ko loolu ci miraas na ko xam moom xëy na boo joxee tey dañ ko xam ba tey li ko war a moom li des loolu it la ci doon kasarat ngeen bari na banaatu it ni doomu jigéen ñi doom bu góor ba lan mu set na defu leen dolli xalaa zalika sudd si ci boobale sudd si en dara di lam yekkul doon nekkut ba nga xam ne di ànd ak ñoom zakarun góor kon wamaa la nga xam ne baq yo des na dañ xasabati ñeel na beneen bàyyi ba dafa ne nag bu fekkee ne sët yu jigéen yooyee dañoo ëppoon kenn it bu doom bu jigéen ba benn genn wàll ñoom benn képp la ñu tegg ne sudus ñoom sët ya la ñu bari bari ñu séddoo ko yam ca bu fekkee am nañoo góor waaye bu fekkee am nañoo sët bu góor nag kon dalañ mën a jël ci mboolem la des daal di koy séddoo góor ñaar jigéen benn waaw mel ni tey jii bu fekkoon ne tey gannaaw doom bu jigéen yi ndig du doon genn wàll kooku daa bàyyi sët bu góor ak sët bu jigéen su boobaa ñoom ñaar ñoo ñoo jël la des mu genn wàlla ba tey moo des dañoo jël séddoo ko te góor bi ñaar ko la jigéen waaw bu fekkee nag léegi sëdu jigéen yi góor raxut yi dañoo xam ne du weer sudus ba kon la des moom gën a daa koy jël maanaam koo xam ne yaa ngi doon xaar aw des ñu war a doon lu gën lu gën a ba war a asabal daa la ko jàngal ci kanam bu soobee yàlla moom leer la ñi nga xam ne kon mooy ñi nga xam ne ñoo doon ci xaar aw des te loolu mooy asabal loolu mooy jël desoowee wayn kaanat ndem nekk na aw banaatu doomu jigéen diggee is na tey ni di ñaar lam yakun kon du nekk li banaatu ibni ñeel doomu jigéen doom bu góor ba xewun dara ima am yekkoon ba rek dafa nekk maa xun na di am na ñoom axun mbokk mu góor fa yekkoon na tey nekk maa baq yàlla des bay na xun na seen diggante moom sat yi wa bay na ak diggante moom sat bu góor ba lu dëkkaru ñel na góor ga mis lu xam bul umpa yéen itam caru ñaari jigéen dafa wax ne bu fekkoon ne ki faatu loolu am ci doom ëpp na benn doom bu jigéen xas nañ mat ñaar mbaa ñett ba jël subusaani xam ne bu ko defee juróom benn ñoom tegg nañ ñeenti benn yoon mu subusaan ndax lu ndax ndax ñu ëpp kenn kon nee na sët yi jigéen ya sax bu ñëwee sa góor dara duñ ko am ñaar lu góor rek dañ jël ci desoo lu des moom sumus la ndax juróom benn la ñeenti yaa dem ndax doomu jigéen yoo ko jël doomu doomu jigéen yi li ñoo ko jël kon nag léegi sët yu jigéen yi bu dee jigéen yi kese dara luñ ko am bu ñaan de góor nag jël si ñaar yi des juróom benn yi te moo di ab sumus daal ko seddoo te góor ga ñaar ci la jigéen ñooñee wa kasaalika naka noonu isa kaana dem nekk na zaalika zakaru googee góor tax taxul na ci seen suuf kaana kon nekk zaalika loolee bay na xoo diggante moom góor ga ba bay na xoo ak diggante moom sët yu jigéen yi kasaalika naka noone nee na sax bu fekkoon ne bu doomu jigéen yi jëlee sumusaani sët yu jigéen yi fi des góor gañ àndul sax ñoom bàjjal lañ ci moom nga xam ne ñoom dañ di ay sët moom muy sëtaat nga xam ne moom sëtaat la ñoom sët rek lañ waaye moom sëtaat la nga xam ne ñoom boo ko seetloo bàjjal lañ ci moom bàyyam lañ bokkalan du ci wàññi dara du tee moom dina mën a ànd ñoom ñu jël si li des daal koy seddoo góor ñaar jigéen benn lu mu ko gën a jege du ci woon dara wa kasaalika naka noonu law warisa doonte doon naan na banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor naxal ibnati ànd ak doom bu jigéen digg ba ak sudusu sudus wa tax taxul na te mu nekk ci seen suuf banaatul ibni yeneen doomu jigéen doom bu góor naxaxun na yooyu ànd naa ñoom aw tax taxul na wala mu nekk ci seen suuf zakaru góor ba tey kon kaana nekk zaalika loolee bay na xoo digganteem wa bay na axawaat yi ak digganteem bokk ñu jigéenam ya aw mun wala ka nga xam ne foofu fa nekk na ci kawam min xamaat yi te moo di ay bàjjanam masala moomu daa bëgg a wax ne ba tey moom benn doom bu jigéen moo fi nekk war a am genn wàll waaye nag sët yi sët yi moom dañoo nekk ñaari xeet ndax yenn sët yi jigéen kese lañ waaye ñoo gën a jege nga xam ne kon bu doom bu jigéen bi jëlee nisif niki boo defee juróom benn moom mu jël ñett moom doom bu jigéen bi ñett yi mooy doon genn wàllam sët yi gën a jege nga xam ne sët képp lañu nag te amuñoo góor di ay jigéeni kese daal jël sudus xam nga sudusu juróom benn mooy benn su boobaa xam nga kon dana des ñaar te ñaar boobu sulus lañ koy tuddee ab ñetteel ndax xam nga juróom benn moom waxoon nga ne ab sulusam mooy ñaar léegi daa wax ne nag bu fekkee ay sotaat am na fa nga xam ne ñoom sori dañ sori moo leen tee ànd ak sët yu jege yi ca sulus ba sotaat yooyu dañ àndee góor mën nañoo jël si sulus mu ñaar ñoo ña des daal di koy seddoo góor ñaar jigéen benn góor ba ñu àndal nag loo xam ne góor ba ñu àndal ñoom sotaat yi mën naa yemal ñoom daraja nekk sotaat kese waaye mën na leen a gën a suufe sax ñoom ñuy sotaat moom mu nekk sotaataat du ca wàññi dara xam ne ko masala moom boo koy tëral da ngay wax ne juróom benn fi nekk doom bu jigéen bi nga xam ne mooy doom bu jigéen dëgg jël na ñett sët yu jigéen yi nga xam ne moo xam kenn lañ moo xam ëpp nañ kenn waaye ànduñoo góor waaye sët kese lañ jël nañ benn muy sudus sëtaat yi ànd góor nag waaw ñoom ñoo jël ñaaree des mooy sulus daal di koy seetloo góor ñaar jigéen benn waaw loolu fi mu toll daf koo laaj dara ngay wax ne rek benn doom bu jigéen dafay nekk bu ko defee juróom benn saam moom mu war a teggi ñett mu genn wàll ay sët nekk fi mbaa benn sët ñoo ci am waaye jigéen la moom góor raxu ca kon bu dee kenn kee bu dee mbooloo mi mën nga war su benn mi sudus mën nga war su benn mi sudus ba juróom benn ñu teggi ci benn waaw bu nga ko weesoo moom nag dafa am ñu fi des ñoo xam ne ay sëtaat lañu ba tey ñu bokk ci sudus ba mooy gën a sori ñooñu nag ñoo ànd góor ñoom góor gañu àndal mën naa yore ñoom dong di setaat mën ñu gën a suufu sax di setaataat du ca dara du tey mën naa ànd see ñoom ñu mën a jël si ñaari des ndax ñaari des fi mu toll ko xam ni bu ñu ko jëlee ko seddoo góor ñaar jigéen benn loolu wax naa walaaye doxalu du dugg nag fii daalika ci loolee man ndax man ka nga xam ne daxala bëggoon na fi sulusee nit ñaari sulusee min banaatu ibni ci doomu jigéen doomu góor maanaam day wane ne sët yi gën a jege nga xam ne teggoon nañ benn muy sudus ba dem nag gannaaw ba doom bu jigéen ba teggee ñett muy nisif ñoo ne ñoom buñ gisee sët yi gën a sori di seddoo si ñaar yi du tax ñu ci seen wàll ñoo bëgg cee bokk ñoom benn boobu rek lañ mën a am moom la ñuy gën a gën a jege sulus bañ jëloon rek ca ñu mën a yem waaye mënuñoo bokk seeg sëtaat yi ñi ñu bëgg a seddoo góor ñaa jigéen benn loolu mënta am loolu tax na mu indi baal ji ngay bëgg a dégg li mu wax naa wala ya duxulu du dugg fii daalika ci loolee man ka nga xam ne daxala bëggoon na fi sulu say ni ci ñaari sulus ñëpp min banaatil ibni ci doomu jigéen ni doom bu góor maanaam daa bëgg wax ne sëti kese yi nga xam ne ba doom bu jigéen jëlee ñett ñoom dañoo jëloon benn ndax li nekk sëti kese buñ gisee sitaat ya ànd ak góor di jël ñaar ñooñee nga xam ne mooy sulus ba des su boobaa ñoom duñ ca mën a bokk si ci benn boobee ñu jëloon rek ca la ñuy mën a yem loolu leeral nañ ko léegi bu baax a baax defe naa ki koy jàng dina ko jàpp bu baax mu yaraatul uxti donop mbokk mu jigéen ak shaqiqati mu di ab xarit ak nisfu muy genn wàll bu ñu ab xarit dañ cee jublu koo xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi mu ne ak am xarit ci yow jublu nañ ci koo xam ne yéen a xaritoo rek déedéet wax ne mbokk mu jigéen boo xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi su fekkee ne men la kon kooku genn wàll ga moo koy moom dafa aral ji ñaari xaaj genn wàll ga moo koy moom walis na tey ñu donop ñaar ña fa saaxidan topp lu ko ëpp ak talisaani mooy ñaari suus maanaam bu nit faatoo bàyyi ñaari mbokk yu jigéen ñu bokkal ndey ak baay mbaa mu ëpp ko waaye mbokk mu góor defu ci moom ñu yëpp ay jigéen lañ bokk ñoom ndey ak baay kon ñoo jël suus suusaani mooy boo ko defee ñetti xaaj ñoo jël ñaar ña wala boo ko defee juróom benn xaaj ñoo jël ñeent ña mooy ñaari suus fa in kaanoo ndem nekk nañu ixwatan di ay bokk yu góor waa xawaatin ak ay bokk yu jigéen suxaay xam di ay xarit aw li abin wala ñeen wàllu bàyyi fal maal kon alal ja bay na xum nekk na seen diggante loolu bokkari ñeen la góor ga mis lu xam dal um fayo ni kem carut ñaari jigéen xam loolu moo xam ñëw nañu aw kasaroo wala ñu bàyyi yeneen bu fekkee ne kooka daa bàyyi ay mbokk yoo xam ne nii ñoo yem daraja ci moom ñoo yem ñoo yem nu mbokkee ñoom ndax ñoom yëpp ndey bàyyi la bokk ñoom mbaa nga ne ñoom ñëpp bàyyi dong la bokk ñoom kon nee na àtte bi àtte bi ñu def te moom mooy dañ leen di wàññi góor gu ne ñu wàññi ko ñaari nit jigéen ji kenn jenn jëmm bu ko defee nga séddale leen alal ji nag ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn bu dee ñoom dong nga jékki-jékki séddale alal ji ci loolu wàññee nañ toll te góor nga jàppee ko ñaari jëmm daal lay séddale alal ji muy góor ñaar jigéen benn noonu lay def ñoom mbokk ña bu fekkee borom cër am na fa la génne cër yi ba lépp nag bu ci lay génnee la des nag moom la ñu seetlu noonu ñoom mbokk yi ñoom jax jaxasoo nañ di góor ki jigéen ne góor ñi ñaar ci la jigéen ñi li ki bu fa soxna nekkoon jooy jamono nga génne góor boobu ci soxna si lay des nga ko def noonu bu fa waaye nekkoon na nga génne subus jooy jamono ba gis lu su yaay génn subus nga door seetlu ci des mbokk yi noonu wala axawaatu bokkuñ jigéen ya ndax lu banaati ànd ak doomu jigéen ànd ak doomu jigéen digg ya kal xasabati ñu ngi mel ni ñuy asabaal wala ñu ngi mel ni gaño laxun na ñelle yaa def na gën a ñu doon maa la nga xam ne fadala des na xan xun na ci seen gannaaw wala wara baati deeful dogal laxun na ñeel mbokk yu jigéen yi maxa xun na ànd ak doomu jigéen dig ya waaw sooy feela ci miraas maanaam daa wax ne bu fekkee ne kooku bàyyi na doomu jigéen yoo xam ne moo ñu jur dëgg-dëgg mbokk yu jigéen yi bokkal ndeeg baay wala baay loolu yoo xam ne ci cër da ngay bàyyi rek bu doomu jigéen ñi digg yi desee génnee lu des rek nga jox ko ñu bokkoon ndey bàyyi xam nga koo misaale bu fekkoon dafa bàyyi woon ñaari doomu jigéen digg bàyyi ñaari mbokk jigéen ñu bokkoon ndey bàyyi loolu bu fekkee toppoon nga li nga waxoon léegi day mel ni faaw nga war koo sompe ndax xam nga suusaani moom mooy bu la juróom benn mooy ñeent day mel ni kon boo defoon juróom benn doomu jigéen digg yi mat na ñaar war na dégg ñeent muy suusaani te kon ñaar doo may des xam nga war nga ci delluwaat ñeneen ñaar mu door mat ba mu suñu saani waaye loolu lay wax ne nag bu fekkee ne nii la demee ñu bokk moom day bàyyi amuñu foofu jër dañu ne la ñuy xaaru des la la des rek la ñu doon fi nga waxee ni boo ko defee juróom benn saam ci misaal ba mu jigéen bi gii bu jëlee ñeent muy suñu saani ñaar ñi nga xam ne ñoo la bokkal day bàyyi dañuy jël ñaar ñaar ñu fa des rek dañuy jël suus ba suus bu fa des rek si boo ko yem ci loolu loolu la jël xam nga dañuy jël des rek noonu waaw bu ñu waxee def ko ñetti saam nag boo defee ñetti saam ba tey ñaari saam ñoo nekk suñu saani moom ngay jox doomu jigéen ñi jur dëgg-dëgg benn ba des nag moom ngay boole ñaari jigéen ñi nga wax ne ñoom la bokkal day bàyyi ndax benn boobu des ñu séddoo ko ci digg ba waaye bu la jigéen benn da cee yem dong moom ndax moom am na uxtu menn mbokk mu jigéen choq yi xam ne ab xarit wa uxtul ak menn mbokk mu jigéen aw axawaat wala ay mbokk yu jigéen yi li abin ñel wàllu bàyyi fa nisf kon genn wàll nga ñu choq yi xam ne ñel na xarit ba wala man ñeel na ka nga xam ne mbaq ya des na loolu axawaati ci mbokk yu jigéen ña li ab ñëw wàllu bàyyi ak sudus sudus li nga jàngoon jëm baa bëgg jëmm nag doon fa wax bu nit bàyyi woon doom bu jigéen bu mu dëgg dëgg bàyyi waale fa sët bu jigéen xam ne ci doomu góor la bawoo la nga waxoon foofu rek nga bàyyiwaat fii ci diggante ku faatu bàyyi mbokk mu jigéen dëgg dëgg bokk moom day bàyyi ak ku jigéen koo xam ne bàyyi doom la bokk moom la waxoon foofu rek mooy ñëwaat fii fi mu toll li wax fii mooy ku bàyyi doom ku bàyyi mbokk mu jigéen bu mbokkal ndey bàyyi bàyyi benn mbokk mu jigéen bu mbokkal bàyyi dong la nga waxoon foofu mooy ñëwaat mooy ki mbokkal ndey bàyyi te mu jigéen mooy moom genn wàll ki bokkal moom bàyyi dong jël su dus te loolu nga waxante ci ci diggante doom doomu jigéen ak sët yi itam sët jigéen yi la nga ci waxoon la nga waxaat fii la nga waxoon foofu ne doomu jigéen bu xasee mat ñaar ba doon suñu saani sëtu jigéen bu am te góor ñàkk la nga waxaat fii nga wax ne fii bokk jigéen ñi bokkal ndey bàyyi bu nga xasee mat ñaar ba jël suñu saani ña bokkal moom bàyyi dong te jigéen bu ñu am te góor ñàkk góor rek la ñu àndal doom jël si wees waaye bu fekkee am ñoom góor daal ñàkk loolu lépp nga waxoon foofu rek moom lay waxaat fii naa walaw kaanataa doon te nekkoon nañ ñoom ñaar choc yi xatee ni di ñaari xarit lam yakun kon du nekk li axawaati ñooy mbokk yu jigéen ñi lil abi ñëw wàllu bàyyi fiam dara ilaa nekkoon dara bu dafa nekk maa xam ne ànd ñoom na zakkaram góor fa yàqu soona te ñuy jël maa la nga xam ne baq ya des na li zakkari ñeel na góor ga mis lu xam bil on tayni kenn carub ñaari jigéen waaw maanaam fii itam bu fekkee mbokk yi ci wàllu bàyyi am nañoo góor dañ mën a jël si dañ daal di mën a jël si ñaar yi des ndax boo ko defoon juróom benn ñu bokk moom day bàyyi tey jigéen ñoo jël ñeent ñu suñu saani waaw léegi ñu bokk moom bàyyi tey jigéen bu ñu àndee góor boole ci daal moo jël si ñaar yi des waaw ñoom ne góor boobu day war a yem ñoom daraja rek day war a yem day war a yem ñoom daraja moom waaye la ma wax fee ab setaat ñu ànd ak sëti fii moom mën fee am fii moom foo ko fekk góor gi ànd ñoom day yem ñoom daraja rek man mbokkum góor lay doon ñoom doon mbokkum jigéen ci wàllu bàyyi moom doon mbokkum góor ci wàllu bàyyi rek ñeema doon waaye mën leen gën a suufee moom fii wa miiraasul uxti doonu mbokk mu jigéen li ummi ñëw wàllu yaay wala axi amul mbokk mu góor li ummi ñëw wàllu ñeel wàllu yaay sawaan mbir mu ñëw yemoo ak sudus mooy sudus li kulli waahid ñeel kenn ku ne wa in kasiroon dem bari nañu fa sulusu sulusu bay na xam nekk na seen diggante ak bakkaru góor ga wala sa ak jigéen ja sawaan nga yemoo lañ fii ci moom maanaam lislaam na moom daa fonk di wàllu yaay ni ma ko waxee mu dama ko baamuwaat mbokk mu jigéen fi mu toll maanaam mbokk moo ko yaay dong ñoom ci muy jigéen muy góor a ci am sudus lay am bu dee menn sudus lay am bu dee menn su ëppee menn ñu bool leen suus ak ñetteel ñu bokk ko yemoo ci képp kenn ci ëppee sa morom loolu wax naa wayen kasaroon dem bari nañu fa sulu suus bay na xam nekk na seen diggante te am zakaru góor ga wala fa ak jigéen ja sawaa nga yemoo lañ fii ci moom bon lay wax ne mbokk ci wàllu yaay bu dee menn sudus bu ëppee menn nga bool leen suus te yemoo ci képp ma nga daal di góor a jigéen ca mbokk yi bokk ndey bàyyi wala wàllu bàyyi doo ko wax fii ci mbokk wàllu yaay moom wàllu yaay moom góor a génne ma dong ci suuf ba bu bokk ci suuf suñ ko ci doyam ca
dana leen yiir maanaam dana leen tee doon ñoom mbokk yi ci wàllu yaay anil miraas yi walis doon ma nga noonu sax dana leen yiir walis doon mooy dana leen tee doon alwaladu doom wa banuuhu ak ay doomam wa banuuhu daa war a firi ay doomam yu góor waaye doom nga góor du ci ab sart wal abu ak baay wal jaddu ak maamu góor lil abi ñel wàllu baay maanaam mbokk ci wàllu yaay moom dañoo yomb daanu am na ñett ñu leen mën a yiir maanaam ñu leen mën a daaneel te mënuñoo daaneel mbokk yi ci des ndax xam nga doom moom bu dee góor mbokk yépp lay daaneel set itam bu dee góor mbokk yépp lay daaneel bàyyi bi nga xam ne moo jur ko faatu itam bu fa nekkee mbokk yépp lay daaneel waaye nag am na ñett ñoo xam ne moom mën nañoo daaneel mbokk ci wàllu yaay te mënuñoo daaneel mbokk ci des loola mooy doom bu jigéen benn sët bu jigéen muy ñaar ak maam ji góor muy ñett ñett ñi mën nañoo daaneel mbokk ci wàllu yaay te mënuñoo daaneel mbokk ci des loolu nga jàpp ko bu baax ñu ngi koy leerale mooy da ngay wax ne bu fekkoon ne tey mbokkum ndey ak bàyyi wala mbokkum bàyyi dafay nekk ak doom bu jigéen ba sët bu jigéen du tee bu desee rek ñoom ñooy doon des wa duñu daanu bu fekkee nag borom cër yi dañoo jeexal cër yi nag kuy xaaru des moom da ngay daanu waaye xamal ne daal moom duñu daanu ngir rek ne doom bu jigéen am na ba sët bu jigéen am na maamu góor nag moom bu amee tasifa ak mbokkum ndey baay wala mbokkum baay daañu la jàngal sax nañu defante ca kanam yenn téere yi sax dañ koy tuddee baabul jaddi wal ixwati mooy dañ leen di beral bunt boo xam ne sax ca la ñuy waxe nañu jëflante ñoom mbokk yi ak maamu góor waaye boobaa itam jàpp ne mbokk mu jigéen moom génn na maamu góor da koy daaneel
fonk gone fi fonk wàllu mbay nag te lislaam mooy fonk ba léeg-léeg mu jumloo kenn ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day faatu bàyyi kum bokkal ndey dong bàyyi ñum bokkal bàyyi dong bàyyi doom bu jigéen nag bu doom bu jigéen xasee am nag suñ toll ka bokkal ngam ndey moom daan du am dara bu doom bu jigéen ba doom doon rek am des ñu bokkal moom bàyyi ñoo koy doon waaye ka bokkal ngam ndey moom du am dara ndax li doom li doom bu jigéen am loolu nag damay jumloo lu bari ci miras wal axu mbokk mu góor yori su wana doon almaal alal ja isan farada ndi wéet na kaana moo xam nekk na chaq yi xam di ab xarit aw ak wala ñal wàllu baay maanaam mbokk mu góor nag moom ci wàllu miraas amul benn cër boo koy waxal daam ñoo xam ne ci wàllu miraas moom amul benn cër boo leen di waxal buñ fi nekkee moom dong daal moom alal jëpp buñ fi nekkee borom cër bàyyi cër yi génn ñu jël desoo loolu nag dama ciy tuddaale doom bu góor ak sët bu góor ak baay maanaam baay dama koy def loolu di ko def fépp waaye wax nañ ne ko ci gannaaw fa mu koy defee ak maam bu góor dina koy def loolu rek dina ko def saa yu nekk waaye mbokk bu góor mi nga bokkal ndey baay ak mbokk bu góor mi nga bokkal baay ak ñaari baay yu ndaw ya nga ñëw ni daañu doon ak seen doom ya nga ci tegoon ñoo ñëpp moom jàppal ne ci miraas amuñu benn cër boo leen tuddee mais wax daal moom buñ fa nekkee doon yëpp alal yi bu fi nekkee borom cër bàyyi na cër yu génn ñu séddoo desoo ñu jël desoo bu dee kenn ni ki bu dee bàyyi ndaw itam limu ñu bokk séddoo bu dee kenn ki mu jël ko bu dee dañu bàyyi noonu doom itam noonu la doom ji góor ji bu dee mel na wala muy mbooloo it noonu la fi nga toll nag tey nag mooy mbokk nga waxoon naa wax ne mbokk su fekkee ne nekk na fi moom dong day doon lépp moo xam daa bokk ci faat ndey ak bàyyi moo xam daa bokk moom bàyyi waaye bu fàttali mu góor mi nga wax bu dee mu jigéen moom wax nga wax nga lu war a doon bokkee moom ndey baay ak bokkee moom baay waaye jigéen ñi ak du limoo yépp te góor raxu ci wax nga lu war a doon wa shaqiqu xarit ba yax jubu dama yër al axa bokk ma lil abi nga wàllu baay dafa wax ni nag saa yoo xam ne moom am na ku góor ku bokkal ndey baay kooku day mën a jeexal alal su boobaa nag ka bokkal moom baay dong daan na waaw ci faatu bàyyee ku góor ku bokkal ndey baay ku bokkal moom baay dong moom daan na nit nga xam ne bàyyi doom bu góor sët bu góor daanu ak nit nga xam ne bu bàyyee bàyyi maam bu góor daanu noonu la mbokk yi mel bàyyi mbokk mu góor mu bokkal ndey bàyyi rek ka bokkal mu bàyyi doomu daanu mu góor mu jigéen wa in kaana ndem am na axun mbokk mu góor wa axun ak mbokk mu jigéen fa ak sari topp lu ko ëpp saxaay xa ci ay xarit aw ak wala ñu wàllu bàyyi fal maamu kon alal ja bay na fi nekk na seen diggante ñoom jëkkër ñeel na góor ga nit ñi xar jël am fa yéene kenn cërub ñaari jigéen loolu baamul waaye waxoon na ko léegi maanaam bu fekkee ne daa bàyyi ay mbokk ñu limu waaye ñoom ñëpp ñoo yem ci moom daraja ndax dañoo bokk moom ndey bàyyi ñoo di góor ñoo di jigéen mbaa dañoo bokk moom bàyyi rek waaye ñoo góor ñoo jigéen ñi kon dañu séddoo te góor ga ñaar cële jigéen ñi waaw kon mbokk yu góor yi ñooy ñaar cële yu jigéen ñi waaw loolu ñu koy defee bu fekkee ñoom dong la ñu jekk-jekk def naanu bu ñu fi nekkee boroomu cër nag bàyyi cële yu génn ñu doon def naanu waaye im taal ndam nekk na maxal ak ànd ak mbokk mu góor jiw sax min boroomu cër bu di akoon jëkkee bi ahli si waaye nit ñoom cër yi wakaanatu nag loxo di ñeel mbokk mu góor ma maa bàq la des loolu doon naa ko wax léegi su fekkee ne mbokk mu góor mi dafay nekk koor am cër niki mu nekk fekk jëkkër wala mu nekk fekk yaay wala mu nekk fekk maam jigéen yépp moom borom cër lañ ñooy génn cër kooku jox ko mu des nag mbokk mu góor mu jël ko danaa leeral na nag bu dara des du am dara dese rek lay xaar yooyu jamono bu dara desul du am dara wa kasaalika naka noonu yekkoon dana nekk maa la nga xam ne bàq ya des na ñu ëxwati di ñeel bokk yu góor yi wala axawaati ak bokk yu jigéen yi ñu jëkkëru ñeel na góor ga gis lu xal bi am ko yéen kenn cërub ñaari jigéen xam nga daal ñu koy wax menn mbokk dong mu teg ci ne bu fekkoon ne ay mbokk la itam yu góor yu jigéen te borom cër nekk fay cër yi moom mooy njëkk génn ba noppi la des nag moom la mbokk yooyu di séddoo góor ñaar jigéen benn fa in lam yab xam dem desut cheyum dara fala chey kon di dara la xam di leen ñeel ñu ne bu fekkoon ne ñu doon xaaru des waaye dara desut kon noonu la dina am dara kuy xaaru des ku ne bu desul rek na ñàkk leneen di laa nekkoon dara bu dafa nekk fii ahli si yaay nit ñoom cër yi ixwatum ay mbokk yu ëmb ñooy wàllu yaay xadd warisoo xadd warisoo ñoo xam ne doon nañu ak sulu sa sulus waxat baqiyata des akun mbokk mu góor shaqiqun mu di ab xarit aw ixwatu wala ay bokk jikóor ñu ay góor aw jikóor wala ay góor wa inaasin ak jigéen shaqaayako yi di ay xarit maa xam ànd ñoom fa yu shaarikuuna kon danañu bokkaaleeg kulluhum képp ci ñoom al ixwata bokk yi ñu ummi ñooy wàllu yaay fii sulus yi seen sulus li mu la waxoon ne la bokk yi dañuy xaar aw des ñoo ñu bokk moom day bàyyi mu jaxasoo góor ak jigéen ba ay góor kese mbaa ñu bokk moom bàyyi ba te loolu nga ci waxoon ne dañuy xaaru des loolu góor rax na ci bu desee ñu jël bu desul ñàkk loolu wax ne léeg-léeg nag am na menn masala moo ci génne te am menn masala muy wax masala mustaraka day nekk masala moo xam ne ay mbokk ci wàllu yaay day bokk ci ñu jël cër yi te ñarum xaaru des nag bokk moom day bàyyi te ay góor kese mbaa góor rax ci nga xam ne ko dañu xaaru des ba noppi na paru des waaw lu mel noonu boo amee xam nga day doy waar ndax ñoom ñi nga xam ñoo bokk ci wàllu yaay ba xas doon fi mu toll ndey ji tax ñu amul cër ñii doon xaaru des tam bokk nañu waa ji ndey ji bàyyi bi rek moo leen téye doomam ci am doon bokk ci wàllu yaay waaye moom ñoo bokk jam ndey ji waaw masala moom mën nga koo misaale léegi fekkoon ne jëkkër dafee nekk ay yaay ak mbokk ci wàllu yaay daal limu ëpp benn ak ñu bokk ñëw ji ndey bàyyi nag benn bi ay góor kese ba góor raxna ca moom moo ko masal ma juróom benn lay doon juróom benn jëkkër di teggi ñett ndax ndeyam doom amut sut amut war naa am genn wàll mu ñett yaay teggi benn muy suddus ndax mu limu mbokk yi mbokk yi moo tax mu nawee suddus benn lay teggi mu des ñaar ñaar yi des mooy sulus sulus nag mbokk ci wàllu yaay bu ñu moo ko war a jël kon jeex na ndax juróom benn la woon jëkkër ñett genn wàll yaay benn muy suddus mbokk ci wàllu yaay ñaar muy sulus kon jeex na léegi ñu bokk moom day bàyyi nag te ay góoru kese ba boog góor rax na ko ñu doon xaaru des te ndaa waxoon léegi ne kuy xaar aw des bu des da nga ñàkk waaw masala moom na nga génn ci loolu masala moom moom nga seet na ñuy xaaru des ñooy ñu doon sulus bi ñu bokk ci wàllu yaay ñoo bokk yaay jiwu bàyyi duñ bokk tëj bàyyi duñ bokk ci faatu rek te ñoom ñu doon moom ci bokk ci wàllu wàllu yaay bokkuñ doon moom bàyyi bi rek loolu da nga leen teqale waaye ñoom ñu des moom day bàyyi ñoo ko bokk ci faatu loolu ba mu njëkkee xew nee nañ dañ ko seet boobu ñu wax léegi mooy ñu bokk moom day bàyyi ñàkk dañu am dara ñu bokk mu yaay rek doon ak jëkkër ak yaay ñoom ñu bokk moom day bàyyi ñàkk ba mu amaatee nag ñooñu ne Omar Omar yàlla na ko yàlla gërëm yooyu jamono moom lañu wax ne ko waaw dëgg ñun ndey ji moom moo ko bokk bàyyi bi rek moo nu xañ moo nuy xañ te noo jël bàyyi teg fële mel ne moom bàyyi aw dëgg la rek yoo sànni ci géej ñu doxe fa kon yow ñun noo bokk noo bokk yaay ñu far bokk ci bi waaw ba Omar seetee noonu nag mu jubu ko xam ne la war naa mën a nag te ñu tàmbalee àtte nag loolu bu amee ñu jël ñu bokk moom day bàyyi boole si loolu ñu bokk moom yaay suuf suuf ba mu waroon nga boole ko bokk ci wàllu ndey ak bokk ndey ak bàyyi yi doon xaaru des ñu far ko séddoo te ñu jàpp ne ndey dong lañ bokk nga xam ndey du am góor ñi ak yéen benn ñu bokk rek séddoo suuf ni ñu ñu toll rek góor bu nañ jàppee ko góor bu nañ jàppee ko kenn jigéen bi ne kenn kenn la góor naa jigéen benn ko defee ñu séddoo ko ni noonu ñu ne moom yëpp ndey dong lañ bokk foofu rek mooy masala moo xam ne léegi waram xaaru des desut waaye du leen tax ñàkk moom la wax naa dañuy bokkaale mbokk ci wàllu yaay ci suus ba fa yekkoon te mu nekk moom suus ba bay na am seen diggante bi sawaay ci yemoo wax yemoom alfaridatu mooy masala ma allit yi ma nga xam ne tusamma def na ko wooye al mustarika masala mustarika moom la sara bi wax naa waqad waqa waqad waqaxat hadihi almasalatu fi zamani xumara awala xaamin min xilaafatihi fa asqata al ashiqaa nadaran li istigraaqi lfuruudi altarikata falamma waqaxa lahu nadiruha thaniya xaamin wa araada an yaxkuma fiha misla ma xakama awalan qaala lahu baxdu alashiqaai xub an abana kaana ximaaran aw xajaran mulqan fi lyami alaysat ummuna waahidatan fastaxsana kalaamahu وشرك وشركهم في الثلث فقيل له لم لم تقض في العام الماضي هكذا فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولا يرتقب أحد الاجتهادين بالآخر ولو كان بنت نكون من بقي تدس إخوة لأي بوك لأبن يوالو باي لم يشاركوا كن من بكالك الإخوة بقية لأم يوالو ياي لخروجهم نصف الجن عن ولادة أمي alhamdulilah di ci ëmb ci juru yaay ja nee na li nga wax léegi bu fàttali ñu bokk ñëw ñu dee bàyyi ñoo fa des te góor rax ñu wolu ci waaye nee na bu yàlla dogaloon ña fa des te bokk bàyyi dong lañ bokk ki faatu kon nee na buñ bokk seet bokk ci wàllu yaay nga xam nga ñoo yaay leen tax a doon te nee na ñoom bàyyi doom lañ bokk ci bànk su boobaa kon ñoom dañuy ñàkk waaye duñ bokk seen bokk ci wàllu yaay ndax ndey ji tax ñu jël ñu doon si leen ñoom ñu ñoom ne nga wàllu bàyyi lañu wa in kaana doon nekk wa in kaana doon te nekk na wala wa in kaana doon nekk na man mbaq ya ka des uxtan di mel di mel mbokk mu jigéen aw axawaat ni wala muy ay mbokk yu jigéen di abdoyi ni ñeen ñaari waajur aw li ab ni wala ñeen wàllu bàyyi waxuñu la kon sompaleef laxu mu ñel leen maanaam balaa nekk masala mustarika rek ñaroon xaaru des góor ak ja waaye bu fekkoon ay jigéen kese lañ moo xam ndey bàyyi lañ bokk ci faatu ba bàyyi doom lañ bokk moom kon léegi dañu dellu ci la amul ci su boobaa masala mi daa xala somp waaye xam nga bu doon menn ma nee na bokk bu jigéen ñi nee nga woon nisir la nee woon bu dee ñaar ñi suytan la nga xam ne kon fu ñu toll masala mi moo xala somp rek waaye faaw nga somp nga xam ne bu fekkoon ne da ngaa def ni bàyyi mel bokk bu jigéen des nee na bokk bu jigéen nisir la kon juróom benn nga defoon nga koy bàyyi tastaane def ko juróom ñaar nga yokk ñetti saam ngir kooku teggi ñetti ñoom bu fekkoon ne ñaari mbokk yi ñoo des ay góor am ci kon da nga yokk ñeenti saam ndax ñoo war a doon suñu saam te suñu saam juróom benn mooy ñeent kon juróom benn saam yi nga defoon moom ngay bàyyi def ko muy fukk ko defee ñoom ñeenti mën a yokk ñoom ñoo koy def wa in kaana dem nekk na it min xidul indi ci wàllu yaay axun mbokk mu góor waaxid ne neen aw uxtul wala mbokk mu jigéen lam takkun kon masala mi bu nekk mustarika tan di masala mustarika wa kaana te nekk kon maa baq yàlla des min ixuti di ñeel bokk yi in kaanoon dem nekk nañu jikooram di ay góor aw jikooran wala ñu ay góor wa inaatan ak jigéen nee na itam balaa nekk masala mustaraka mbokk yi ci wàllu yaay limu ba jël sudus waaye bu fekkoon ne mbokk ci wàllu yaay men lañ day jël sudus kon day des nga xam ne sudus benn la juróom benn ñu yaay jëli benn mu sudus kon mbokk ma ci wàllu yaay bu doon men benn lay jëli mu sudus nga xam kon faaw mu des benn kon benn boobu dese kus ne noonu la ñu boole boole mbokk yi ci wàllu ndey bàyyi tam xaaru des ndax ndegam dara des na rek moom loolu lañ jël dinañ moo fa des kon nee na balaa nekk masala mustarika tënk nañu mbokk ci wàllu yaay dañuy limu ba jël sudus am na teel waaye bu fekkee dañoo doon kenn rek bu fekkee ba teel kenn la ba jël tuddus aw di des benn bu desee benn nga jox ko ñu xaaru des wa in kunna dem nekk nañu inaasan di ay jigéen ñu adoyi ni ñoom ñaari waajur aw li abin wala ñuy wàllu bàyyi wax yi la kon sompale laxun na ñeel leen loolu ak daamu dong la bu desul dara dara loolu la ko waxoon dafa wax ne gannaaw bi nga xam ne alal ji jeexoon na nii fekkoon ne ñoom xaaru des maanaam ñu amit dañoo bokkoon moom day bàyyi mbaa bàyyi waaye jigéenam góor na ko ji moo na nga waxoon léegi faaw nga somp ko ndax ñoom cër lañu war a am bu góor amee rek mooy liggéey ci cër ñu xaaru des waaye bu góor amul rek wax nga cër yi léegi wala xul mbokk mu góor ñu addu ñoo wàllu bay ka chaq yi fi mu ngi mën a ab xarit fii xaddama chaq yi fi ci ñàkk ab xarit illaa fi mustarika na rek masala mustaraka dafa wax ne mbokk moo bokkal bàyyi dong nga wecc ko bokkal ndey ak bàyyi li mooy ci masala mustarika masala mustarika mooy weesu ne nga karoon xaaru des bu fekkoon ne bàyyi dong la bokk néew bi du doon kenn du ko boole ca ñi ñu doomu suuf bi ngir wàllu yaay ndax dafa bokk toog moom yaay bi bàyyi dong la bokk moom léegi jamono ko mënu fa wécc mbokkum ndey bàyyi nga xam ne mbokkum ndey bàyyi bu góor bi fi nekkoon tey moom day ñëw bokk sa bokk ci wàllu yaay dana faral mustaraka kon day tontu ngay wax ne mbokk mu góor bi nga bokkal bàyyi moo wécc moo bokkal ndey bàyyi dañoo amoo moo bokkal ndey bàyyi waaye nag génn ci masala mustaraka mu nga weesu léegi ka fa des doon mbokk mu góor bokk bokk ci faat ndey bàyyi dañ koy boole seet ñu bokk moom yaay ñu bokk sulus bi bu fekkoon ne moom léegi bàyyi doom la bokk moom kon day ñàkk kon wér nañu foofu ba ñu axi doom bokk mu góor par axi ni ngi bokk mu góor fii xa dañu axi ci ñàkk bokk mu góor kaana moo xam nekk na choc yi xam di ab xarit aw li abin wala ñuy wala bàyyi nee na koo xam ne amul mbokk waaye bàyyi na doomu mbokk koo xam ne amul mbokk mu góor waaye bàyyi na doomu mbokk mu góor kon doomu mbokk moom mooy wecc bàyyi daal taxaw taxawaay bàyyi la mbokk daan doon rek moom la doomu mbokk di doon wala wala yéri si di doom ibnul axi doomu mbokk mu góor yu ummi ñooy wàllu yaay nga mbokk ci wàllu yaay dana doon waaye bu fàttee doom moom du doon waaw bu leen leen doon ci góor li maa leen ci woon doomu mbokk mi nga xam ne yaay doon nga bokk ñoom wala axu mbokk mu góor lil aboo ni ñeel ñaari waajur yax bi bu dana yéen al axu mbokk mu góor lil abi ñooy wàllu baay nee nag dañuy seet ni mu gën a jege jege bi rek bu fekkee ñooñu ku ne mën naa jeexal alal kon dañuy seet bu gën a jege rek mooy jiitu mbokk yi lañu jiital dara wax doomu mbokk yi te mbokk yi lañu jiital ka bokk néew ba ndey bàyyi te góor ni am na ka bokk moom bàyyi du am dara bu fekkee am na ñu door a seet ka bokk moom bàyyi buñ jeexee jàll seen doom waaye seen doom itam dañu jiital ki nga xam ne bàyyi lañ néew dañoo bokkoon ndey bàyyi war a jàll ci nga xam ne bàyyi lañ néew bàyyi doom lañ bokkoon bu ñëw ñëpp jeexee nga xam ne xool na mbokk amul doom mbokk amul na nga war a jàll ci bàyyi bu ndaw bàyyi bu ndaw da ngay jëkkee ki nga xam ne seen ñaari bàyyi ñoo bokkoon ndey bàyyi door a jàll ci nga xam ne seen ñaari bàyyi bàyyi dong lañ bokkoon maanaam li ma jublu rek mooy bàyyi bu néew bi laa jublu bu ci koy doon tey tey bàyyi bu ndaw waaw ñoom ñaar kon dara nga wax bàyyi tax bi nga xam ne moo bokk ak bàyyi bu néew bi ndey bàyyi moo jiitu bàyyi tax yi bokk ak bàyyi bàyyi dong door a caa topp bu jàllee ma ñëw seen doom seen doom noonu lañu mel waaw ci nga xam ne léegi seen ñaari bàyyi yi bokkoon ndey bàyyi waaw kooku doomi kooku doomi sa doomi bàyyi ji nga xam ne seen ñaari bàyyi yi bokk ndey bàyyi kooku mooy jiitu sa doomi bàyyi ji nga xam ne seen ñaari bàyyi bàyyi dong lañ bokk
noonu nag la ko borom téere bi di bëgg a tegalee moo tax mu waxee ko nii
wala bu ne axin doomi mbokk chaqi xin mu di ab xarit aw laa mooy gën a yow ne nit ñi axin ci doomi mbokk li abin ñal wàllu baay boobu ne axin doomi mbokk li abin ñal wàllu baay yaxa ji bu dana wér xam man bàyyi tax li abawi na ñoom ñaari waajur wa xam man bàyyi tax li abawi na ñoom ñaari waajur yaxa ji bu dana wér xam man bàyyi tax li abin ñal wàllu baay wa xam man bàyyi tax li abin ñal wàllu baay yaxa ji bu dana wér ibna xam man doomi bàyyi tax li abawi na ñoom ñaari waajur ibna xam man doomi bàyyi tax li abawi na ñoom ñaari waajur yaxa ji bu dana wér ibna xam man doomi bàyyi tax li abin ñal wàllu baay waxee ko fenn ki ni yokkoon dana nekk al aqrab ko gën a jege aw laa di gën a waaw li gën a gàtt ci daal mooy bay wàññi ñu war a doon ci góor nga tegaloo ko ni mu war a yiwaatee nga xam ne da ngay wax mbokk mu góor mi nga xam ne moom nga bokkal ndey bàyyi bool cee teg mbokk mu góor mi nga bokkal bàyyi doom ko defee nga ñaar nga seen doom ki nga xam ne yaag bàyyi ngeen a bokk ndey bàyyi ak nga xam ne yaag bàyyi ngeen a bokk bàyyi doom bu fekkee nag mbokk jeex na bala mbokk jeex na nga dóoru ko ci bàyyi ndaw yi bàyyi ndaw itam na njëkkee sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne mook sa bàyyi ñoo bokk ndey bàyyi teg ci sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne mook sa bàyyi bàyyi doom lañ bokk nga wax seen doom ñoom ñaar waaw nga xam ne nag léegi bu bàyyi ndaw yi jeexee doy bàyyi ndaw yi jeex na kon amatu foofu ko nit fu ñu toppi waaw noonu nag noonu la ko tegalee fi toll waxe bi xawal ci waaye noonu la jëlee ku gën a jëy rek noonu fàttiwu ma nag mbokk ci wàllu yaay waaye xam nga moom doom bu doon moo tax moo tax yarisa du donn doonul axawaati doomi mbokk yu jigéen yi maakun na lu ñu mën di doon lu ñu mën di nekk maanaam sa mbokk mu jigéen doomam la doon waxam mbokk mu jigéen ni yéen a bokk ndee baay baay yéen a bokk baay baay yéen a bokk ndee moom daal sa mbokk mu jigéen daal moom doomam la doon sa mbokk mu góor lala doom di doon day fekk doom ji doom góor boole ci waaw waaye jàpp jàpp bi laa lay waxagul léegi daal moom mooy sa mbokk mu jigéen moom ak lu leen mën di bokk ban doom la doon wala banoolu banaati te ceegeenu doomi doomi jigéen ña do aaju wanaa xam maanaam sa sag di bàyyi ko ci doom bu jigéen bi la doon sa sag bu bàyyi ko ci doom bu góor rek moom mooy doon sa doom bu góor moom kam jur muy góor ak kam jur muy jigéen ñooyam mais ñëpp lay doon waaye sa doom bu jigéen moom jàppal ne benn satam di la doon du bu góor ba du bu jigéen ba wala banaatu axi te caageenu doomi jigéenu mbokk mu góor maakaana lu mu mën doon lu mu mën doon moom mbokk mu góor ma maanaam sa mbokk mu góor su fekkee mbokk mu góor mi yéen a bokk ndey ak baay baa yéen a bokk baay doom mën na laa doon waaye day fekk doom jooju nekk góor waaye bu dee jigéen moom du doon loolu nag lu mën a jumloo la ci miraas moom lu mën a jumloo la ci miraas ndax dama doon képp boo dee xool wala banatul xam ne du caageen doom yu jigéen yi bàyyi tax xam nga bàyyi bu ndaw da nga ne woon bu jàllee ñaari bàyyi ndaw yi nga ñëwoon nga waxoon ne bu ñu jàllee seen doom moo ci topp waaye seen doom day doon góor boole ci waaye fi mu toll doomi bàyyi bu ndaw bu dee jigéen doon loolu tam mën naa jumloo kii miraas ndax day gis rek yow moo daraja donc ñoom ñëpp ay doomi bàyyi lañ kii di jigéen kii di góor ñu doon la koy koy góor bàyyi koy jigéen waaye kon loolu nga bañ cee juum xamal ne góor gi rek ay doon waaye jigéen ji du doon wala jaddum du caagéenu maamu góor li ummin ñel wàllu ndey maanaam maamu góor ci wàllu bàyyi mooy doon maamu góor mu jur bàyyi waaye maamu góor mu jur sa yaay waaw sa maam ju góor ji nga xam ne mooy sa maam góor ci wàllu yaay ok kooku du doon mooy rek sa maam góor jur sa yaay rek ñu bokk ci ñu doon sa maam bi koy jujur sa bàyyi waa kay ko kay doon wala xam man du kaa génn bàyyi tax axoo abi ka kay mbokkum sa bàyyi lu ummi lu ñaar wàllu yaay maanaam ba ñu wàññi ñi doon génne woon nañ ci kii sa bàyyi ba ndaw bi nga xam ne moo sa bàyyi yaay dong lañ bokk kooku boolewuñ ko woon ci ñi doon ba tey moom lay génne moom wala yori sa doon abdul ab jaam wala man du kaa génn koo xam ne fii nekk na ci moom baqiyatu riqin desiti njaam maanaam boo jàng téere yi waxoon naa léegi ne da ngay gis attey jaam yu bare bari waaye jamono jaam daa amoon te xew léegi la dañ rek ci réew mi waaye jamono taal téere jamono taal téere yi moom mbirum jaam daa xew lool ma tax bari ci atte bokk na ci atte nag jaam moom ci boppam du doon te du su ko doon buñ faatu woon tey bàyyi naaw ju góor joo xam ne gor la bàyyi bàyyam boo xam ne jaam la naaw ju góor bi nga xam ne mooy gor mooy doon waaye bàyyi bi gën a jege tey jaam moom du doon waaw bu ñu faatu woon tey bàyyi doomu góor boo xam ne jaam la bàyyi sëtun boo xam ne gor la sëtun boobu mooy doon doomu góor bi moom doon jaam moom doon di su ko doon na yomb naa xam ka moomoon ka ko moomoon moom moom alalam bu faatoo ba tey moom la bàyyi bu ñu ne di su ko doon moom loolu loolu mooy gaawal bi ki ko moom muy dund moom la mu yor bu faatoo ba tey moom la mu yoroon rek moom moo ko moom alal ji rek kon bi ne jaam ci bopp bu doon dis ko doon mooy loolu ku am dara ci njaam soxla farat nit ku ngoreel jëm ci lenn ak ku ngoreel jëm ci dele ak ku ngoreel lenn bàyyi lenn lépp du tax mu tax mu doon ku am dara ci njaam rek doon wala yore du doon al muslima jullit ba al kaafiru yéefar ba wala al kaafiru di jaay jënd yéefar ba it mu doon al muslima jullit ba maanaam bokk na ci sart doon ngeen bokk diine bu nga xasee wuute diine rek doon te jeex naka dañ ne ab julit mën naa takk ab yahut mbaa nasaraan soxna itam bu ko fa takk soxna ku njëkk a faatu sa morom la doon ndax ñàkk kaa bokk diine ba tey mën ngaa misaal ne ndey ak doom wala baay ak doom fekkoon ne kenn ka daa faatu te kenn ka nekkoon julit kenn ka nekkoon leneen lu dul julit ba tey kenn duñ doonante ñu mel ne ay jàmbur kon jàpp bokk na ci faatu doonante bokk diine nga xasee wuti diine rek doonante jax foofu wala bu nu axin di faa goonu doomu mbokk bu góor lu ummil ñel wàllu yaay xam nga mbokk mi nga bokkal yaay moom la nga doon waaye doom na mu doon mbokk mi nga bokkal ndeeg bàyyi tamuy góor wala mbokk mi nga bokkal bàyyi tamuy góor kooku la waxam doom mën naa doon ndegam doom ji góor la li ñu wax fii nag mooy ki nga bokkal yaay donte góor la itam moom mën naa doon waaye doom moom du doon waaw mbokk ci wàllu yaay moom mën naa doon waaye doom du doon moom wala jëddun du faa génn maamu góor li ëmmal ñu wàllu yaay kooku baanu gu sot la baanu gu leer nañ léegi la waxoon wala jot li umit noonu la tegaloon baat yi tam sax am na ko ba woote wala ummi abin ummi bu caageenu ndey bàyyib ndey ndey bàyyib ndey maanaam mooy sa maam jigéen ji nga xam ne moo jur sa maam ju góor waaw xam nga sa bàyyib ndey moom mooy sa maam ju góor jur sa ndey waaw yow sa maam ju góor ji nga xam ne léegi moo jur sa ndey yow bu doon yow muy jàng yow Bachir Diop la tudd waaw léegi nag yaayu Bachir Diop ngay wax nag léegi waaw bu doon ko noonu koy xàmmee yow yaayu Bachir Diop mooy ummu abil ummi wala tori sa du doon ummu abil abi ndey bàyyi bàyyi li gën a gàtt mooy ndey maam di góor maam di góor rek mu gën a gaaw maxa wala di ànd ak doomam ja abil ndey di koy bàyyi néew ma waxin woowu ni mu ko waxee dafa xaw a lënt te mënoon naa leer ndax li bëgg a wax rek mooy maamu jigéen mi nga xam ne mooy maamu jigéen bi ci wàllu baay bu fekkee ni bàyyee nga fa kon maamu jigéen moomee day daanu moo tax sarabina wal maqsuudu min qawlihi wala tarisu ummu abil abi maxa waladiha abil mayit lim jublu lim bëgg a wax rek mooy annal aba yaxjubu al jaddata min jihatihi wa in xalat waaw daa bëgg a wax rek ne maamu jigéen mi ci wàllu baay bu fekkee ne bàyyi nga fa rek kon moom jeexlu na ci doon waaw nee na sax bu waxoon ne wala tarisu aljaddatu maxa waladiha rek su waxoon loolu la salima min al ishkaali alwaaqii fi kalaamihi li anna awalahu yadullu ala annaha ummul jaddi wa aaxiruhu yadullu ala annaha ummul abi waaw nen yow daal gàttalal rek moom daal ni ma ko waxee rek moom jàppal loolu maamu jigéen bi féete ci wàllu baay daal moom su fekkee ne bàyyi nga fa rek kon moom bàyyi doon waaye moom maamu jigéen ma du doon walla mooy gàttal bi moom
wala tarifa du doon ixwatum ay mbokk li umma ñel wàllu yaay maxal jëddi ànd ak maamu góor muy abu ñel wàllu baay wala maxal wala bi du caagéen ànd ak doom muy wala di wala bi ak doomi doom kaana moo xam nekk na al wala doom ja bakkaram di góor ay um faa wala muy jigéen dafa wax ne mbokk ci wàllu yaay dañoo gaaw a daanu waxan nañ ko keroog ndelu ko baamoot tey ndax génération moom jëm ci da ko yomb lool mbokk ci wàllu yaay am na ñett ñu leen mën a daan yi ñoo xam ne mënuñoo daan mbokk ci des mooy doom bu jigéen ak sët bu jigéen ak maam bu góor doom bu jigéen sët bu jigéen maam bu góor mënuñoo daaneel mbokkum ndeeg baay mënuñoo daaneel mbokk wàllu baay dong ndax bu desee gannaaw doom bu jigéen ba sët bu jigéen bi bu desee du tee mbokkum wàllu baay ba mbokkum ndeeg baay dong maam bu góor moom daañu la wax léegi ñu defante mbokk yi loolu xam ne ko mën leen yërëm mën leen tee doon waaye yooyu lépp nga génn ci mbokk ci wàllu yaay mbokk ci wàllu yaay moom maam bu góor amee daaneel ko bu doom bu jigéen amee daaneel ko bu sët bu jigéen amee daaneel ko kon toon ñi bu doom bu jigéen amoon ci faatu am na ko mbokkal ndey moo xam toon la mbaa bilim ak ñu mbokkal baay kon toon ñi bu doom bu jigéen bi jëlee wàll muy genn wàll ñu bokk ak moom bàyyi rek ñooy doon waaye ñëpp ci bokk ak moom yaay moom daan na doom bu jigéen bi wala miraasa diitu dono ñu ixwati ñeel bokk ya maxal abi ànd ak baay maakaanoo lu ñu mën di doon waaw dafa loolu tam waxoon nañ ko ci gannaaw mu tënk bu gaaw bu gàtt mooy dañ ne woon su fekkee ne baay bi nga xam ne moo jur ci faatu mu ngi fi mbokk yëpp daan na moom bu doom bu góor amee mbokk yëpp daan na bu sët bu góor amee mbokk yëpp daan na xam naa daal lañ ko daan gàttale miraas daal moom dañu ko fekk ci baay bi jur ci faatu mbaa doom bu góoram mbaa sët bu góoram jot waxati menn mbokk mbokk yëpp daan wala wara suñ doon xàmmun bàyyi tax maxal jot di ànd ak maamu góor maanaam maamu góor na moo gën a jege baay bu ndaw su maamu góor nekkee mooy doon te baay bu ndaw moom bañ am dara wala bu nga axin di caagéen doomu mbokk mu góor maxal jot di ànd ak maamu góor maanaam fawata ajoo naa teylu maamu góor mënta daaneel mbokkum ndey baay mbaa moom baay waaye nag mën naa daaneel doomu mbokk waaw foofu takkale ko li mbokk moom doomam mënu ko bu dee doomu mbokk moo taseeg maam ju góor maam ju góor rek doom doomu mbokk moom daanu te bu fekkoon ne mbokk dëgg dëgg la nag moom moom day bàyyi wala moom bàyyi moom yaa ngi wax léegi ni muy defanteeg maam ju góor moom maam ju góor mënu ko daane wala wéru fu bon xaatirul xam di ajira yi tey man maa leen ci alal wala diwit di coogeen die maanaam koo xam ne waroon naa doon nit ci yoon waaye daawul bëtiku rey ko te rey ko dañ koy xam dana wax ne ko yow doo ko doon ci genn wet moom mi nga waroon doon taw bëti bu rey ko te tey ko doo doon ci àllam doo doon ci jiw ji ngay joxe alal ji ngay fay ci bakkan bi bu fekkee fayantoo amul alal jëm ci fay ba tey di ko doon loolu yëpp daanu waaye waxam na ko ca buntu ahkaamul xuduudi wa dimaa wala wari su bon xaatirul xatal ak reyu tayeeful mën a diwul ci diir wala di si waaye dana doon mën maa ci alal ja maanaam ku rey nit waaye téye ko te fekkan nga war koo doon kon alal ba ngay fay ci bakkan moom doo ca doon waaye alal boobu da nga xam ne bokkul ci alal li nga joxe moom na nga ca doon mooy loolu si loolu waaye ni sama maal te kull mun képp koo xam ne laa yori su ci doon di xaalin ci am mbir te laa waxi bi kon bu wiir maanaam kon bu tee doon waaris na ji doon dafa wax ne koo xam ne dem nga ba doo doon doo yàqal kenn ab doon waaw loolu na waxin la woo xam ne boo ko toppee léeg-léeg mu dañ bu baax a baax ko wax noonu rek waaye lu mu wax ne koo xam ne dem nga
mel ne yaay bu fekkee ne mbokk yi dañoo limu te fekk bàyyi nekk fa xam nga nekk fa bàyyi nekk dana tax ñoom mbokk ya duñu doon tax nee ngoon bu fi bàyyi nekkee mbokk yëpp daanu nañ waaye ñàkk ñu ñàkk doon bu tee ñu yàqal yaay cëram ba gën a rëy muy sulus ab ñetteel daal dem ca sudus ab juróom-benneel man bu ne koo xam ne doo doon ci ci ak anam doo yàqal kenn doon waaw loolu am na teqale ci boobu wet loolu ba tey léeg-léeg ki ki ki miraas jëm ci ki miraas léeg-léeg day fàtte ni lu mat ñaari bokk nekk na fi waaw ba doon loo yaay sulus te fekk ne yaay sudus la war a am ndax ay bokk am la ñoo doon rek waaye am nañ ko ci sooy la bokk wal mu tallaxat ku ñu fasee salaasan ñetti yoon filmaral ci tawat wal mu tallaxat ku ñu fasee salaasan ñetti pase filmaral ci biir tawat taris dana doon soo jaa jëkkëram ja in maata ndem faatu na min maral di xiit tukkee ja tawatam ja daalika joojee wala yari suxaate moom du ko doon maanaam bu fekkee ne buur dafa tawat tawat joo xam ne daayes na ci faatu dañ ko wax ne ko kon sëñ laa fase sa soxna ndax bu ko fasee day mel ne kon da ko wéeniwu dono bi waaw loolu nag bu tawatee ba noppi fase soxnaam ñetti yoon nag ne ko fase naa la ñetti fase ci misaal kon dañ koy wax ne ko léegi nag fase mi moom dal na waaye su fekkee faatu nga ci tawat ji moom faaw mu doon faaw mu ñëw doon ndax dangaa mel ne ko wéeniwu dono bi nga xam ne bu yàlla dogalee tawat ji yàgg jigéen ji mën naa bàyyi ko foofu séyiwaat séyiwaat séyiwaat ba am ay doomi doom te lu tee bu waa ji faatoo tawat ji rek moom faaw mu ñëw doon si faaw moom cër ca alal ja bu jigéen ñi njëkkoon faat na moom góor gi du ko doon mooy walaa yari suwaa wa kasaalika naka noonu in kaana ndem nekk na ak talaaxu fase ma waahidatan di menn waxad maata te mu faatu min maral bi ca tawatam ja zalika joojee baxdal xiddati ci gannaaw xidda ja xam nga fase moo xam ne moom des na ko fayli mooy menn fase mbaa ñaar ko ku ko fase sa soxna te fekk nga tawat yow mi fase tawat jee tax moom ba it daj jeexoon it waaw ba it daj jeexoon ba mu sëyiwaat it du tee moom moom jëkkër ji bu faatoo rek faawu soxna suñu doon si ko te loolu nag bu fekkoon du woon tawat ji bu ko fasee fase benn fase wala ñaar ba kera idda ji jeex su soxnaam la ku ci njëkk faatu sa morom doon la waaye bu idda ji fasee jeex kenn du ci doon sa morom waaye li ñu wax ni nag mooy da ko fase ci biir tawat moo tax nga xam ne moom bu yàlla dogaloon idda ji jeex buur ko door a faatu du tee soxna suñu doon li idda ji jeex jeex du tee mu ñëw doom ndax fase gi mu ko fase ci biir tawat loolu nag bu ko fase woon te fekk boobu tawatul nag idda ji dong la ñu doonante ñoom ñaar waaye bu idda ji xasee jeex doonante doom moom lay bëgg a wax ni wa in tallaqa ndeem fase na ak sax yow aji wér imraatahu soxnaam talxagan am pase waaxidat muy menn fa innahuma naka ñoom ñaar yattawaara saan danañu doonante maakaana li fa nekk na moom jigéen ja fi na xiddati ci xidda fa inin xadat ndéem jeex na fala miraasa kon deetub dono bay na xumaa nekk seen diggante bax daxaa ci gannaaw xiddaja ah dañuy jàpp ne benn pase wala ñaar mënta jeexal bu wusey bu wusey moom ñett moo ko mën a jeexal ko defee na kon koo xam ne pase na soxnaam benn pase mbaa ñaar ba idda ji jeex bu góor gi faatoo soxna si donn ko bu jigéen ji faatoo it góor gi dem donn ko fa idda ji jeex ba idda ji jeexee nag kenn donn sa morom waaw léegi sax boo fasee sa soxna benn fase mbaa ñaar dañuy jàpp ne ba idda ji jeex sa soxna la nga xam ne bu fekkee yoroon nga ñett ak moom dañuy jàpp ne ba léegi yaa ngi ñeent bu fekkee idda ji jeexul doo mën tëkkaat keneen dañuy jàpp ne ba idda ji jeexul moom te benn benn fase fi dox mbaa ñaar xam ne na koo fay li loolu ba tey boobu sëy fi nekk jeexawut wa man tasawaja ku takk imraatan jigéen fii maradihi ci tawatam ja lam tarisku kon jigéen ji du ko doon wala yarisuha te du ko doon moom góor ga maanaam niñ aayee góor gu tawat tawati faatu muy fase noonu lañ ko aayee mu takk nga bu demee ba tawat tawati faatu takk jigéen day mel ne ko ndëkk koo yéene kooko doon ko loolu dañ koy aayee ba tey nga xam ne léegi bu fa tawatee ba noppi dem takk dañ ko wax ne ko kii nga takk moom boo faatoo ci tawat ji du la doon bu la njëkkee faatu yow doo ko doon waaw loolu jeex na wa taris dina doon al jaddatu maam mu jigéen ñu ummi ñel wàllu yaay ak sudus ak sudus wa kasaalika naka noonu allati maam jigéen ja nga xam ne bul abi ñel na wàllu baay booy wàññi ñi doon ci jigéen da nga caa wàññiwaale woon maam mu jigéen ci wàllu ndey ak maam mu jigéen ci wàllu baay ñaar ñëpp nga waxan waaw léegi nag jàppal ne ku ci mën doon moom du wees sudus juróom benn saam mu tegg benn rek du ko weesu ñoom ñoo bokkul ñu doon mu jigéen bi ci wàllu ndey ak mu jigéen bi ci wàllu baay ku ci xas bay doom rek loolay doon moom itam léeg-léeg kii miraas jëm ci kii miraas day fàtte ne kii miraas dañ koy wax ni ko rek yaayam faatu na bàyyam faatu na te du laaj ba xam maam bu jigéen a ngi fi ndéet ki ki ki jur yaayam mi ngi fi ndéet te loolu bari muy am ndegam yaayam faatu na moom waaye maam bu jigéen mi ngi fi maam bu jigéen moo war a am suddus ko def juróom benn saa mu tegi benn waaye moom dafa di fàtte loolu waaw fa indi tamaxataa ndéem tase nañ ñoom ñaar fa suddus kon suddus ba bay na nekk na seen diggante bu fekkee ne moom bàyyi na maam jigéen ci wàllu yaay bàyyi maam jigéen ci wàllu baay buñ jox kenn ku nekk sudus leen di boole ñoom ñaar ñëpp sudus ñu seddoo ko ci digg bi rek waaye lu duñ jox kenn ku ne sudusu boppam benn rek la ñuy bokk illa am takkoona ba réew dafa nekk allati maam ma jigéen ba nga xam ne ñu ummi ñel na wàllu yaay aqraba di gën a jóge bi darajatin ci daraja fa takkoona te muy nekk awlaa di gën a yoyoo bi ci sudus ba li ànd xaal ngir naka moom maam ji ci wàllu yaay allati mooy ja nga xam ne fiihaa nekkoon na ci moom an nafsu yax ba ñeneen nag bu fekkee ne am na maam jigéen ci wàllu yaay am na maam jigéen ci wàllu baay waaye maam jigéen ci wàllu yaay daa gën a jege ndax maam dong la daka ci wàllu baay moom maamaat la kon xam nga ci wàllu yaay moo gën a jege kon ci wàllu yaay moom dong mooy doon moo jël sudus bi ci féete ci wàllu baay moom ñàkk ndax ci cosaanu doon maam jigéen ci wàllu yaay dong moo daa doon gannaaw bi lañ ci xiyaas rek ki ci wàllu baay waaye kee moo cosaanoo woon doon kon bu kooku gënee jege moom ci wàllu yaay moom dong mooy jël lépp waaw wa in kaanat ndem nekk na nag allati maam mu jigéen ba nga xam ne lil abi ñeel na wàllu baay aqrabahuma di gën a jege ci ñoom ñaar fa suddus kon suddus ba baynahuma nekk na seen diggante les fay ni mbir mu muy yaaru genn wàll maanaam nag li nga waxoon léegi boo ko safaanee nga xam ne ka féete ci wàllu baay ay maam mu jigéen ma ci wàllu baay moo gën a jege xam ne maam dong la ka féete ci wàllu yaay doon maamaat du tax na ko kee defoon jël ko moom dong du tax kii moom mën ko waaw faaw dañ koy bokk rek waaye lu tax kii féete ci wàllu bàyyi ba gën a jege jël ko moom dong faaw da koy seddoo kee rek ndax wax nañ la ne la kee moo doon ci santi doon wala yi dasul doon inda maalikin fa maalik ak sa lépp min jaddatee nit ci yaari maami jigéen ummil abi ndeyu baay wa ummil ummi ak ndeyu ndey wa ummahaatihima ak seen yaay ñoom ñaar maanaam bu dee ci fiqu maalik bi ñu àttee fii ci réew mi yaay maami jigéen dong moom lay doon loo dañ nga ko xool maamu jigéen mu jur sa yaay ak maamu jigéen mu jur sa baay koo ci xam ne nekkoo fa mu xool pësës ci yow waaw ni ki bu fekkee maamu jigéen nekk mu daal xool maamaat bu maamaat nekkul mu xool mu xool maamaataat noonu rek ba ca aadama ko kukk koo xam ne rek moom moo gën a jege daal doon waaye du mën du du weesu ñaar mukk moom fu nekk kenn la fiy jël ci wàllu yaay menn maam ci wàllu baay menn maam waaye li ñu bëgg a wax léegi am kilifa gu koy def moom ñu ko duñ ko def mukk ci fiq malik moom la wax naa waaye bi koy def na tudd xam zayd ibni saabitin jële ca zayd ibni saabit ni ànd foofu naka moom war na fa doon loo woon na sa laa sa jaddaat ñetti maami jigéen waahidatan jenn min xilali ummi ci wàllu yaay war na tey ni am yaar min xilali abi ci wàllu baay te mooy ummil abi ndeyu baay wa ummi abil abi ak ndeyu baayu baay maanaam zayd ibni saabit moom bu doon moom ñetti maamu jigéen lay doon loo benn yoon ci wàllu yaay moom kenn la ci doon loo day xool ka jur ndey rek bu nekkul mu xool ka gën a jegewaat rek muy muy maamaat rek waaye dafa weesu kenn waaye ci wàllu bàyyi na moom lay doon loo ñaar waaw fi mu toll yi fekkoon ne ki jur sa bàyyi dafay nekk ki jur sa maam ji góor nekk fi ñaar ñëpp lay doon loo benn yoon waaw xam nga ndeyu bàyyi ak ndeyu bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi mooy maam ji góor rek maanaam bu dee Seydou moom tey jii bu ñëwee diw moo jur sa baay di jigéen ñu ne diw moo jur sa maam ju góor waaw bu jigéen ñaar ñëpp nekkandoo fi ñaar ñëpp lay doon loo ko defee nag muy ñaar nga boole waale ci nag ka muy limaale ci wàllu yaay kon loolu ñett lay doon loolu nag bu dee maalik moom duñ ko def bu dee maalik moom léegi ka jur baay rek lay doon loo foofu boole ko kii jur yaay rek muy ñaar wala ñu fab wattu fut xàll xulafaay jële ci xulafaaw ya taw reesu ak sara doom loolu ëpp min jaddatee ni caari maami jigéen mu ne waaye nag mosuñoo jële ci kenn ci ñëwutoon yonent bi ne abou bakar ba xomar ba xusmaan ba xalil radiallahu anhum mosuñoo gis kenn ku ci doon loolu ëpp ñaari maami jigéen mel na ne kon li fekk malik atte dëgër na wala jeex na wa mirasul jaddi donat mamu góor itam faral newet na fa la ñal na ko almaalu alja wala ho ñal na ko maxal wala di bu ànd ak doom ak zakkara ju góor aw maxa wala di wala di wala ànd ak doomi doom ak zakkara ju góor ak sudus sudus maanaam maamu góor ni mu doon ni xaw naa mu doon teg bàyyi ci wet ñoo mu ci bu fekkee ne moom dong moo fi nekk ci ko war a doon keneen nekk fa lépp lay jël loolu ñoo ko mu roole ñoo mu roo itam ci bu fi nekkee doom ji góor mbaa sët bu góor sudus dong lay mën a am du yokk du wàññi ko loolu ñoo ko bokk lee فإن شركه ندم بقال نان موم أحد كان من أهل السيانة نيوم تيري خير الإخوة لول أي بوك يغور والأخوات أي بوك جيجين فليقضى كنا أتف له نيلكو بسدس تي سدس با فإن بقي ندم دسات نا شيء دار من المال تي ألجا كان كون مو نيك له ديكو نيال manam ba tay bu fekkee ne maam ji góor dafay nekk ak boroomi cër yoo xam ne bokk amu ca du mu góor du mu jigéen yan boroomi cër la waaw mel ne yaay nekk fa wala soxna nekk fa su boobaa ba tey moog bàyyi ñoo bokkule loolu ñoo bokk àtte jooyu jamono mooy da nga koy wax tudd su mu tee dem xaar desoo bu desee nga dolli ko ko fekkee desul mu yem ja fi ñu wéetee nag mooy bu fekkee ne bàyyi moo fi nekkoon moom mel mbokkul doon bokk yu góor yi nga wax ak yu jigéen yëpp daanu fi bàyyi nekkoon te gis nga nag maam mën leen a daaneel moom nan lay nan lay defe ñoom lay bëgg a wax bu fi maamu góor nekkee ak mbokk yi ni ñu war a defante fenkaari ndem nekk na maha ahli sihaani ànd ak ñoom cër ya ixwatul ay mbokk fa jëdd kon maam mu xayarum ko ñu tànn loola fii salaasati aw jëfin ci yetti anam yaaxus dana jàpp ayu zalika bi mu ca loolee afdalu moo gën la fa ñal ko fekkee ne maam mu góor dafay nekk waroomi cër nekk fi ay mbokk nekk fi boole ci waaw kon nee na maam mu góor yow mi miraas da nga ko xoolal ñetti anam yi boo ci xam ne yaakaar nga ne bu ko defee la ëppale rek nga defal ko booba kon yow mi miraas da nga xool ñetti anam yi bayaka ni mo ci ëpp wala nga koy jëkk seet sa xali moom yetti anam yaa ngi nii bu ci gën nga defal ko mooy imaamu xaasamatal ixwati benn seddoonte mbokk ya aw sulusa wala sudus ba min rasil maali tukkee ci lépp alal ya aw sulusa ma wala sulusub la nga xam ne baqee des na yett yaa nga ko maanaam benn nga bàyyi borom cër yi génn nga jàpp maam lu mel ni mbokk mu góor wàññi la fa nekk ci bokk ñu séddoo bu bu jigéen am ñu def góor ñaa jigéen benn bu dee góoru kese ñu seddoo yam loolu ngay jëkk seet ba xam su ko maam defoon lu muy am maanaam soo génnee doom cër yi bañ génn nga jàpp maam mel ne mbokk mu seddoo mbokk ya fa nekk lu muy am nga xam ko bind ko fee daal di seet boo jekki woon jekki jox ko sudus bi mooy defal lépp doon benn saam jox ko benn lu muy am nga seet ko itam bind ko fee seet nag bu jëloon sulu suma baq ya sulu suma baq ya mooy gannaaw boo génnee borom cër yi ba noppi la des nga def ko ñetti xaaj jox ko benn ba waaw ñett yi ngay jàkkaarle nag boo xoolee lee xoolee xoolee lu ci ëpp rek nga bàyyi ko mu doon ca noonu waaye li nga waxagul nag mooy maam ji góor dafay nekk ak boroomi cër ak ay mbokk li bëgg wax nag mooy bu fekkee ne léegi maam dong nga fa nekk ak mbokk yi waaye boroomi cër amu ci moom far mooy fa lam yekkut doom nekkut moo ànd ak moom yow xayru effort lu dul yow xayru effort lu dul ay bokk kon fi moom moom yuqaa si mu dama seddonteeg axam menn mbokk mu góor wa axaway ni ak yaari mbokk yu góor aw xadd waxuma wala seenum kem arbaxa axawaatin ñeenti mbokk yu jigéen
daa bëgg a wax ne su fekkee ne maamu góor dafay nekk ak ay mbokk kese kon da ngay seet ba xam mu seddoonteeg ñoom ak boo jekkee jekki jox ko sumu sub alal ja lan moo cay gën ca moom lu ca gën ca moom rek nga defal ko ko day def nag léeg-léeg seddoo ga mooy gën ca moom léeg-léeg jox ko sulus ab ñetteel mooy gën ca moom léeg-léeg itam seddoo ga ak jox ko sulus ba ñoo yemoo képp ndax bu fekkee ne benn mbokk benn mbokk mu góor la fi nekkal wala ñaari mbokk yu jigéen loolu moom seddoo gi mooy gën ci moom ndax xam nga bu dee moo benn mbokk mu góor da ngay xaaj ca digg ba ku ne tegg benn te xam nga genn wàll moom moo ëpp sulus ba tey xam nga bu fi nekkee ñaari mbokk yu jigéen it xam nga day am ñaar jigéen benn su boobaa itam dañ koy def ñeenti xaaj moom mu tegg ñaar ñaari mbokk yu jigéen ya kenn ku nekk tegg benn su boobaa boo ko seetloo ba tey maam am na genn wàll ndax ñeent la woon te tegg na ci ñaar loolu lépp seddoo gee gën ci moom bu fekkoon ne nag léegi ñaari mbokk yu góor moo fi nekk wala ñeenti mbokk yu jigéen moo fi nekk nag yooyu jamono mu seddoo ak nga jox ko sulus ñooyemoo dong ndax xam nga bu fekkee dafay nekk ñaari mbokk yu góor ak moom muy ñett ñetti xaaj lay doon kenn ku ne teggi benn te loolu sulus lay am kon bu fi nekkee ñeenti mbokk yu jigéen tam dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn kon juróom benn xaaj lañ koy def bu ko defee juróom benn xaaj yi moom mu tegg ñaar ñeenti mbokk yu jigéen ya kenn ku ne tegg benn waaye boo seetloo ñaar yi mu teggi mooy sulusub juróom benn bu fekkee ne nag léegi ëpp nañu ñaar ñu góor ak ñeent ñu jigéen nag waaw bu fekkee bokk yi ëpp na loolu yooyu jamono kon jox ko sulus mooy gën ci moom ndax xam nga bu fi nekkee ñett ñu góor ak moom muy ñeent kon bu seddoo ñoom ab kaar lay am waaw jigéen ñi buñ doonee juróom benn ci misaal ba tey noonu lay mel bu fekkee dafa seddoon teg ñoom kon day nekk juróom benn saam ak ñaari saama mu juróom ñett xam nga ne su boobaa kon ñaar la cay teggi te ñaar mooy kaarub juróom ñett waaw kon daal jàppal ne rek moom su bokk yi xasee ëpp ñaar ñu góor ak ñeent ñu jigéen rek wala ñeent ñu jigéen rek lu mu ci mën doon xamal ne kon bu xasee ëpp loolu rek nga jekk-jekk jox ko sulus am ñetteel mooy gën ca moom muy seddoonte looloo waral mu naa la fa in zaadoo ndem ëpp nañu ñaar ñu góor mbaa ñeent ñu jigéen falahoo kon ñeel na maam ju góor ak sulusu sulus nga xam ne kon fahoo moom maam ju góor yarisu dana donn ak sulusa sulus ba maxal ixwati ànd ak mbokk ya illaa an takkoona dara bi dafa nekk almuqaasamatu seddoonte ga afdala di gën lahoo ñeel ko waaw baat yooyu moo li ma waxoon léegi moo koy leeral kon maam ju góor bokk na ci ñi doon sulus waaye ndegam day nekk luy gaar rek moo tax booy wàññi ci njëlbeenu bunt bi ña nga xam ne ñooy doon sulus doo ko ca boole ndax moom luy gaar lay doon rek day dem ba mu am rek waaye nekkut yoon wu ñu tëral muy sax saa yu nekk
wal ixwatu bokk ya ñun abiñal wàllu baay mahoo ànd ak maamu góor fi xadami chaqaayiq yi ci nekk ay xarit kas chaqaayiq yi mu ngi mel ni ay xarit dafa wax ne su fekkee ne maam dafay nekkut ak ay mbokk yu bokk ki faatu ndeeg baay waaye nekk na fekk ñu bokk ki faatu baay kon ñoo ñu bokk ki faatu baay ñooy daal di wecc ñu bokk mun ndeeg baay daal di jëflanteel maam ci kaw li ñu waxaan léegi mooy benn ñu seddoo bu seddoo gënee ci moom mbaa bu fekkee bu seddoo daal di bëgg a néewle ñu jékki-jékki jox ko sulus te bàyyi mbokk yi ñoom def seen àtte bopp saa yoo xam ne ñu bokk ndeeg bàyyi nekku fi rek kon ñu bokk ak moom ñu bokk ak bàyyi néew bi rek ñuy daal taxaw jëflanteeg maam mel ne ñu bokk moom ndeeg bàyyi fa in nit tamaxoon dem tase nañu xaat doxoo kon limanteeg moom ba chaqaayiqu xarit ya bill si na ci ña nga xam ne li abi ñeel nañu wàllu baay fa mën a xooxu te ñu teree ko bihim ci bokk yooyu ci wàllu baay kasratal miraas yi bari donn su ma kaanoo topp ñu nekk a xàq di gën a yeyoo mën xum ci bokk yi ci wàllu baay bi saali ki ci doon boobee li muy wax nii moom yoon da koo jàppandal waaye daanaka am ak nax ak ak nax la xaw a ñëw mooy daa wax ne bu fekkee ne maamu góor daa wax mbokkum ndey ak baay mel ne yow yàkki faatu tey yéen a bokk ndey ak baay nga nekk fi maamu góor nag maamu góor ne la ah yow damay seddoonte yow kon nee na bu fekkee am nga mbokk moo bokkal baay mën nga ko wàññiwaale bu ngeen seddoontee ba àggal nag ki nga bokkal baay nga nangu wàllam ndax nga ko wax ne ko yokkal bu fekkoon ne maa yow dong la man damay joxe alal ndax góor laa kon nag ba tey maam rek taxan ma wàññiwaale la waaye dama jël si wàll kon déggal loolu mi ngi mel ne tey maam mu góor nekk fi ak yow nga bokk nag ki faatu ndeeg bàyyi te yow góor nga su maam mu góor ne damay séddoon te yow man ngaa wàññiwaale mbokk moo xam ne bàyyi doo nga bokk moom nga wàññiwaale ko ci kaw séddoo bi bu ñu séddoo baagal nag nga nangu wàllam moom nag mbokk mi nga wàññiwaale woon ci wàllu bàyyi nga xamal ko ne ko bu doon maa yow dong dama lay wiir kon nag maam rek tax ma wàññiwaale la waaye loolu war laa doon nga xam ne kon bu dee yow ak maam ju góor te nga wàññiwaale sa mbokk mi ci wàllu baay te muy góor kon seetlu nga ne ñetti saam lay doon ko defee maam ab sulus la am foofu te boo wàññiwaale itam sa mbokk mi ci wàllu baay xanaa séddoog moom noonu rek kon am nisif la yam ndax yéen ñaar yéen ko séddoo ci digg ba waaw bu ko defee lu mel noonu nag nga xam ne yaa bokk ak moom ndey ak baay te wàññiwaale ñi nga bokkal baay dañ koy seet su fekkee ne yow jigéen nga te nga wañuwaale ñoo xam ne bàyyi nga bokk ñoom ndax bëgg maam bañ a bari ab dono gannaaw buñ seetloo baagal dañuy seet ne yow ndeme yow jigéen nga te kenn nga ci misaal borom doon ci cër ga weesu nisif kon saam yi nga am ci seddoo bi ak saam yi ñi nga bokkal bàyyi te wañuwaale leen ci seddoo bi nga ko boolee dañuy seet bu yemee ci genn wàll nga far ko jël bu fekkee ne ëpp na genn wàll nag dañuy wax ne lim ko ëppee moom jox ko ñi nga wañuwaale woon ci wàllu bàyyi ndax kam ñoo tax am lii loolu nag lay ëllay bëgg indi ay benn benn masala ngir mu leer la moom lay wax naa illa an yakkoon dara bu dafa nekk maxal jaddi ànd ak maam mu góor ma uxtun mbokk mu jigéen shaqiqat muy ba xarit wala xaa te ñeel mbokk mu jigéen mi axun mbokk mu góor li abin ñeel wàllu bàyyi lay taxa foofu muy menn masala maanaam foofu jenn jigéen ji bokk ñëw ndeeg bàyyi moo fi nekk ak maam mu góor waaye fekk na it am na ku góor nag ku bokk ak ñëw bi bàyyi dong jigéen ji bokk néegu ndey ak bàyyi ne kon sañ na maa wañuwaale góor gi nga xam noo bokk bàyyi kon loolu boo ko booleeg maamu góor ñaar saamu foora nekk juróom ndax maamu góor day tegg ñaar mbokk mu góor mu wañuwaale tegg ñaar mbokk mu jigéen mi tegg benn kon juróomi saam lay doon juróomi saam yi ne buy séddoo baagal dañuy wax mbokk mu jigéen bokk néegu ndey ak bàyyi ne ko yow kat da ngay seet ne bu doon yow dong te ngay doon genn wàll ngay am te fi mu toll li nga téye ëpp na genn wàll ndax juróomi saam yi boo jëlee sa bopp nanguwaale ñaar yi nga ñaar yi sa mbokk mi ci wàllu bàyyi jëloon kon ñett mooy nekk sa loxo waaw te saamu juróom la woon kon mel na ne li nga jël ëpp na nisif kon na nga jël nisif rek te li des li ëpp nisif nga jox ko ki nga ñëwaale ci wàllu bàyyi mais nag bu fekkoon ne saami day ay junni kon juróomi junni la kon moo tee ñett yi fi mu toll fekkoon ne saami day ay téeméer kon jël na ci fi mu toll ñetti téeméer waaw te kon ñaari téeméer juróom ko rek moo war a nekk genn wàll ci wax ne kon bu dee junni jëlee ñaari junni juróomi téeméer yenn juróomi téeméer yi bàyyee ko ki nga ñëwaale ci wàllu bàyyi bu fekkee juróomi saam ñu ko defoon saam bu nekk daa nekk ab téeméer kon juróomi téeméer dafa nekkoon te fi toll ni ñetti téeméer mi ngi ci loxoom ñetti téeméer nag xam nga ëpp na genn wàll ëpp na genn wàll bi ndax juróomi téeméer la kon ñaari téeméer juróom fukk rek mooy genn wàll gi day téye loolu nag yenn juróom fukk yi mu jox ko ki nga ñëwaale ci wàllu bàyyi maxal mi ci topp nag da nga ci teg mooy aw uxtul wala mbokk bu jigéen li abin ñëw wàllu bàyyi daal taxaw foofu nag ay waxtun li abin loolu mooy maam mu góor nekk fi mbokk mu jigéen mbokk ki faat ndey ak bàyyi nekk fi ak mbokk mu jigéen bi ci wàllu bàyyi waaw kon loolu saam yi ñeent lay doon ndax ñaari jigéen ñi ku ne benn la war a teggi maam mu góor dong tey moo fi góor war a am ñaar kon ni ko defee ñeenti saam maam mu góor day teggi ñaar daal dem ki bokkal moom ndey ak bàyyi te jigéen nag daal di xool ki bokkal bàyyi ne ko yow kat damay nangu sa wàll waaye tey moom bu nangoo wàllam ba téye ko itam lu nekk ci loxoom day doon dong genn wàllu alal ji ndax ndegam ñeenti saam la woon ma ne moom ñeenti junni mbaa ñeenti téeméer ñaari dong nekk ci loxoom bu dee junni yi ñaari junni ci loxoom bu dee téeméer ñaari téeméer kon de day far téye lépp bennoon rek ndax ëppul genn wàll bu doon doon ci cër genn wàll lay doon te li te li taa ci loxoom di wàll ma wàllu ki wàññi waale te muy jigéen ci wàllu baay weesul nisif kon day téye lépp beneen bu desul dara maxal mi des nag mooy a axun wala mbokk mu góor wa axun ak mbokk mu jigéen li abin ñu wàllu baay fu mujj fi moom moo ci gën a gudd ndax gannaaw maamu góor ak mbokk mu jigéen ndey ak bàyyi mi nga wax te yaari mbokk ci wàllu bàyyi dafay nekk mel ni góor la mel ni jigéen la kon soo seetee ci weñ ci ñu séddoo góor ñaar jigéen benn juróom benn saamu fi war a tase maamu góor tegi ci ñaar mbokk mu góor mi weñ waale ci wàllu bàyyi tegi ci ñaar mbokk mu jigéen mi weñ waale ci wàllu bàyyi mu ngi tegg benn jigéen ñi nga xam ne mooy nde moo bokk néew bi ndey ak bàyyi te weñ waale yoon ci wàllu bàyyi mu ngi tegg benn kon juróom benn la léegi nag xam nga maamu góor demee ñaaram ki bokk moom day bàyyi benn dong la tege woon waaye ñaar ñoom la ñu wàlle woon day nangu seen wàll wépp téye ci loxoom su boobaa li tege ci loxoom ñeenti saam la fekk kon juróom benn saam la woon kon ñeenti saam yaa ngi ci loxoom moom jigéen ci bokk néew bi day bàyyi dañ ko wax ne ko seetal nag boo doon yow genn wàll ngay doon léegi seetal lu genn wàllu alal ji rek boo ko téyee la des nga delloo ko ñee nga wañuwaale ci wàllu bàyyi kon bu fekkoon ne saam yi juróom benn saam saam bu ne junni la dañ koy wax ne kon pinto yaa ngi ñeenti junni te am lépp juróom benn junni la kon da ngay téye ñett ñi boo téye ñett ñi nag benn bi moom nga jox ko ñaar ñi nga ñëwaale ci wàllu bàyyi te kenn koy góor kenn koy jigéen jox leen junni bi ñu séddoo ñoom bu ñu koy séddoo nag góor gaay ñaari ci la jigéen ñi loolu lay daan loolu lay daan wala li mu wax naa fataaxusu kon dana jàpp moom mbokkum shaqiqatu mi nisbaha genn wàllam nga min maa ci la nga xam ne xasala am na mooy dajana wa tusallimu te muy jébbal maa la nga xam ne baq ya des na ilayhim jëm ci bokk yi ci wàllu bàyyi kon nag mooy àtte bi saa yoo xam ne daal noppi nañ day boole wàllam ak wàllu ñam boole waale ci wàllu baay seet nag bu fekkee daa yam ci nisif mu far ko téye bu fekkee daa ëpp nisif nag ñu ne ko yow kat bu doon yow dong nisif ngay doon kon li mu ëpp nisif tam nekk sa loxo jox ko ñu wañ waale ci wàllu baay
foofu nag seetlu nga ne bu fekkoon ne moom mi nga xam ne moo bokk néew bi ndeeg bàyyi day góor bu wañwaalee ñenn ci wàllu bàyyi itam du tee bu ñu seetloo ba noppi day jekki-jekki nangu seen wàll yépp tee ndax xam nga bu doon menn moom dong moom góor gi itam lépp lay doon mu jeex ndax xam nga góor moom day jeexal alal bokk te jigéen jigéen na xam nga moom noonu ñu ko waxee bu dee kenn kee mënta weesu genn wàll bu dee lu ëpp kenn itam mënuñoo weesu sulusaani ñoom nag bu ñu wañwaalee seen mbokk yi ca wàllu bàyyi dañuy seet la nekk ci seen loxo nam toll ni nga ko leerale léegi buñ seetee buñ doon doon ci cër na seen cër di war a yam rek te buñ ko ca seetee mu des kon des woowee moom la ñuy jox ñuñ bokkal ci wàllu bàyyi te wañuwaali woon te wañuwaali woon leen
wala yul baa deful dogal lil axawaati ñel mbokk yi jigéen ya maxal jaddi ànd ak maam góor illaa fil xarraayi ndara ci masalam xarraaw wax daxaa moom rek nee na mbokk yu jigéen yi bu fa nekkanteeg maam maam day seddunte ñoom kenn du leen waxal benn cër ba mu des mel masala am na masala mu ñu wooyee masala mu xarraawu siiw na ci miraas mooy mujj ci bunt bi bu soobee yàlla moom lay wax naa wasana bu guruha xalsat nañ ko xalsat nañu ko tudd bax daxaa sax ci gannaaw lii mooy daana ko wax incha allah su àggee ci masala moomu mbokk mu jigéen des na ko tuddal foofu ab cër ba mel ne maam du séddoog moom waaye itam du tee rek ci séddoo ba la ñuy mujj dañuy wax nag nañu mujj ak nañuy séddoo waaye des dana doon al mawla ka xéewle ngor al axlaa ka gën a kawe itan faraga ndeen wéet na kum salaam jami hal maali mboolem alal ja kaana moo xam nekk na rajulan di góor aw imraatun wala jigéen ku xéewle ngor mooy góoral ab jaam nee na bu fekkee ne yaawum kilifteef bi daal bu fekkee ne kooka faatu na te bawul kenn ko war a doon ci askan yow mi ko yilifoon yaay doon àllam jëpp moo xam kooku góor la moo xam jigéen la fayin kaana dem nekk na ma ànd ak moom ahlu sahmin ñooñ ab cër kaana kon nekk lil mawlaa di ñeel ko xewle ngoro maa la nga xam ne baq ya des na bax da ahli sihaami ci gannaaw ñooñ cër ya nee na bu fekkee ne ki nga xam ne yaa moom kilifteefam daa faatu bàyyi fi nag ku mën a jeexal alal waaye bàyyi na fi ku war a am cër ni bàyyi na fi soxnaam wala bàyyi na fi yaayam mbaa bàyyi na fi maam mu jigéen bàyyi dama noonu kon na ngay bàyyi borom cër yooyu fa nekk jël seeni cër la des nag yow mi nga xam ne yaa moomoon kilifteef gi yaa koy jël wala wala yëri su bu doon nag almawla ka xéewle ngoro ma xal xasabati ànd gën ak bàyyi ga dafa wax ne saa yoo xam ne ku mën a jeexal alal am na fi nag yow mi goreloon dara doo ko am ki bu doom bu góor amee mbaa sët bu góor mbaa bàyyi mbaa maam mu góor mbaa mbokk mu góor mbokk moom ndey ak bàyyi mbaa mag mbokk mu góor mbokk moom bàyyi mbaa bàyyi bu ndaw mbaa doomu bàyyi bu ndaw woowu bu amee yow mi nga xam ne yaa goreloon dara doo ko am ndax ñooñu mën nañoo jeexal alal la lay tax a doon rek mooy kenn ki doon amu fa nga jël lépp mbaa kay doon bu jeexal nga jël leesoo loolu rek moo lay tax a doon wala waxuwa moom nag waaw waxuwa moom ki goreloon a xàq moo gën a yoyoo min sawil arxaami ci waroom jege ñaale ndey ya ak li sunu ñu nga xam ne laa sax ma deetub cër lahum di leen ñeel fi kitaabillahi ci téereb yàlla bi xamsa tedd na aw jàll te mu màgg
daa wax ne moom mi nga xam ne moo goreeloon ki faatu bañ wax ko ne ko yaa moom kilifteef gi kooku bu fa nekkee ñoo xam ne bokk nañu néew ba ci wàllu ndey waaye bokkuñu ci ñi alquran jox ab cër su boobaa kon moom mi nga xam ne moo goreeloon mooy doon ñooñee nga xam ne nag ay bokk lañu ci wàllu yaay waaye alquran waxalu leen benn cër ñooña duñu doon ñi alquran waxal cër nag ci wàllu yaay nag mooy mbokk yi ci wàllu yaay rek moom lay bëgg a wax nii
wala yëri su bu doon min sawil arxaami ci waroom jege ñaale ndey yi illaa man dara koo xam ne loxo ñeel na ko sax mun ab cër fii kitaabillahi ci téereb yàlla ba nee na lislaam moom da koo tëfatu fonk wàllu yaay moo tax wàllu yaay moom ko cay doon mooy rek ñu lislaam wax te mooy ñu bokk ak moom jëmmi jën ndey wala yëri su bu doon an nisaaw jigéen ña mënal wilaay ci kilifteef ga illaa man dara la nga xam ne ah taq na goreel nañu ko aw jarroxoo wala ñoddi ko man koo xam ne ah taq na goreel nañu ilayhi na jëm ci ñoom bi wilaadatin ci jur aw xirqin wala goreel boo xam ne jigéen moom daanaka mënta doon kilifteef kilifteef gi jigéen di moom ba mën caa doom daal mooy lu mu goreel moom ci boppam mbaa mu goreelu jaam jaam boobee am doom mbaam gorelu jaam jaam boobee gorelaat keneen waaye loo xam ne bàyyi ma ko goreloon mbaa maam ma ko goreloon mbaa càmm ma goreloon loolu mënu ko ñu waxoon ne jigéen moom du doon kilifteef ni ko góor di doon waaw doon kilifteef ci yaayam mbaa bàyyam mbaa kenn déedéet moom daal moom ci boppam mooy goreel door a doon kooko mbaa mu goreel kenn kooko am doom mbaa mu goreel kenn kooko goreelaat keneen loolu daal la mën a doon waaye li bàyyi ma goreeloon rek mbaa maamam mbaa càmmiñam rek loolu góoru ko man góoru udduxila kon dugaleef alayhi ci ñoom kullihim boole seen ak darur lorja wa qusimat te séddaleef al faridatu nafalama ala mablax yi sihaamihim ci kem seeni cër bu fekkee nag loolu loolu loolu wax sompoo maanaam bu fekkee ni nga jàngee ci téere bi alquran waxe ni day nit diw daa war daa war am nangam diw na am nangam diw na am nangam te loolu boo ko toppee am ku am ku amut mbaa am ku manqué le kon dañ koy def ñu wax somp somp mooy ñu bari ci saam yi ba nga xam ne ku nekk da nga teggi ci saam yu tolloo la nga waroon teggi waaye dina toll ci dëgg-dëgg la waaw loolu na faral di am lool mel na tey bu fekkoon ne jëkkër dafee nekk ak ñaari jigéen ñu bokk moom ndey baay ak yaay xam nga jëkkër dañ mooy jox ndigal jox ko genn wàll ñaari jigéen ñu bokk moom ndey baay ñu am ndigal jox leen sulusaani yaay ci yooyu jamono war a am suddus loolu masala mi boo ko doon def juróom-benn lay jëkkëroon moom ci cosaan li waaye juróom-benn boo ko defee doo matal ndax jëkkër bu teggee ñett rek jëlul nañ yaay waaye ñaar nga jëkkër ñu ndew bàyyi sax duñ matal suñu saan yi ndax suñu saan juróom-benn mooy ñeent moom boo jëkkee nag jëkkër jëkkër ñett rek ñett mooy des doon ni si matal suñu saan yi jëloo luñ yaay waaye mbokk ci wàllu ndew bàyyi sax mataluñ suñ jëkkee jox itam mbokk ci wàllu ndew bàyyi nee nañu tegg ñeent mi suñu saan yi ñaar dong mooy des du mat ni si te fekk yaay sax faru am waaw su boobaa loolu dañuy fexe rek ba saami mu mat dañuy dal dañuy daal di yokk saami maanaam juróom benn nga ko defoon léegi da nga ci yokk ñeneen ñaari saam te ci yokkee ñaari saam ñett ñi jëkkër jël ko ñu bokk moom ndeeg bàyyi wala jël seen saal yi teggi ñeent waaw ko defee benn ba ci des ñu yaay teggi ko nga xam ne kon loolu juróom benn la woon waaye léegi sampaat nga ci ñaar ñaar yi nga sampaat benn bi day mot lu ñett yi defoon ñu ñeent ñu ci lisaal yi nga jox ko ñu bokk moom ndeeg bàyyi benn bi des nag tàmbeeg ci gis ci wàññi bi rek moom te loolu boo ko seetloo kenn ku nekk lu war a am ci bilim jël na ko nii ci lim bu saam yi waaye du tax du tax mat ko dëgg-dëgg ndax alal jëpp lañ nga tasaat def ko te doon juróom benn nga tàgg def ko juróom ñett ngir mat rek a juróom benn la doon almaali deesu sampal muy ëfti ñeel mbokk mu jigéen ma xal jadd ànd ak maam mu góor illaa fil xarraa i rek masalam xarraaw wax daxaa moom rek maanaam maam mu góor di fi nekkee mbokk mu jigéen day séddanteeg moom ndax su boobaa day bari la xam nga ne ndax kon boo ko defee ñetti xaaj mooy ma moom maam ma lu nekk góor day tax mu am ñaari xaaj mbokk mu jigéen nag teggi benn mu ne kon ba tax ne day séddoon moom kenn du sampal mbokk mu jigéen cëri boppam lu may ci masal yi nii nga xam ne moom la ñu woowee masalam xarawaa te mooy itam loolu la ñu wax ni wëlbati ko séddoo moom la ñu mujjee def na ko sampal sax moom mbokk mu jigéen yi waaye ci séddoo rek la ñu mujjee masala moom lay bëgg a wax moom siiw na ci téere miraas yi waxiya moom imraatun jigéen la tarakat dëj bàyyi na zawjaha jëkkëram wa ummaha ak yaayam wa uxtaha ak mbokk mu jigéenam li adowi na ñeel ñaari waajur aw li abin wala ñeel wàllu baay wa jaddaha ak maamu mu góor nee na masala moomu jigéen day faatu bàyyi fi jëkkëram ak yaayam ak mbokk mu jigéen moo xam ne bu la neexee ne ñoo bokk ndeeg baay bu la neexee ne ñoo bokk baay lu ci mën doon tax ñu soppi ko ak maamu ju góor fali zow ji ñeel na jëkkër ja ak nis fu genn wàll ga wala ummi ñeel na yaay ja ak tëli ci tulus wala jaddi ñeel na maamu góor ak sëgg ci sudus salam maa faraxa ba nga xamee ne jeex na almaalu alal ji ooxee la kon sompaleef na bu uxti ñeel mbokk mu jigéen ma ba nis fi ci sababu genn wàll ga salaasatu ñett waaw nee na loolu ci saal masala mi ci ni nga waxee juróom benn lay doon wax dañoo ki faatu jigéen la dafay bàyyi jëkkëram ak yaayam ak mbokk mu jigéen moo xam ne bu la neexee ñu bokk ndey bàyyi bu la neexee ñu bokk bàyyi ñooyam du ci wàññi dara ak maam ju góor kon cosaan yi masala mi juróom benn lay doon te dafay juróom benn saam jëkkër war naa tekki ñett muy genn wàll nga xam nga ne doom amut cëg amut yaay war naa teggi ñaar muy sulus ak ñetteel nga xam nga ne doom amut cëg amut lu mat ñaari bokk amut benn bokk am ñaar amul su ko defee maam mu góor teggi benn muy sudus su boobaa kon juróom benn yëpp teg nañ ko mu jeex mu jeex su xool mbokk mu jigéen te mbokk mu jigéen tey xaarul ay def ndax ndagam jigéen kese la am te góor cër dëgg la war a am daa war a am genn waaye ñu ko jëkkër amee man la ko war a amee moom mbokk mu jigéen ndax ngaa xam ne bu dee mel bu dee mel ndey ak bàyyi mu sif lay doon bu fekkee moo ngi nekk fa tamit bàyyi mu nekk fa waaye jigéen la itam ne mu sif lay doon kon dañ ko war a fexe ba mu am wàll loolu nag moo tax juróom benn saam yi nga defoon nga tas ko ba mu juróom ñeenti saam soo ko defee juróom ñeenti saam nag mu gën a mën a séddale léegi ndax jëkkër day tegg ñett mu nga waxoon yaay tegg ñaar muy sulus bu ko defee maamu góor tegg benn muy sugis mi nga waxoon ñett yi def nag moom mooy nga sompalan mbokk mu jigéen ñi waaye boo defee nag bàggal maamu góor day wax ne dagal yoon may na ma ma séddoonteeg mbokk mu jigéen ñi kon naa séddoonteeg moom su boobaa ne loolu bu fekkoon ne kuy miraas la ci machine rek wala ci xalima moom coono bi ñu bëgg wax fii la ci fekk waaye coono bi ñu wax fii moom mooy bu fekkee ne léegi maamu góor benn la teggi woon mais su gis boole nga ko ñett yi nga xam ne moom la mbokk mu jigéen am ci somp gi muy wàllam xanaa bi nga sompee ñett la am tolo la jëkkër boo boole yooyu yaar muy benn maam ju góor ak ñetti mbokk mu jigéen ñeent lay doon te ñoo dañu war a séddoo góor ñaar jigéen benn kon kon ñeent yi nga xam ne léegi mooy wàllu maam bu góor jeeg mbokk mu jigéen mi gis nga ne kon mënuñu ko séddoo ci góor ñaar jigéen benn ndax bu maam tegee ñaar mbokk mu jigéen teggi benn day des benn ba tey waaw loolu nag bu fekkee ne ci ni ni ñuy miraase la ci ni ñuy defare saam yi su boobaa dañuy xool ñi nga xam ne ñoo war a séddoo te mënuñoo tegg seeni saam ba xam ñaata lañu fii boo ko dee xool ñett lay doon ndax ndegam maamu góor daa taxaw taxawaayu ñaari jëmm ndax li mu tegg ñaari saam boo ko boolee mbokkum jigéen kon ñett lañu ñu ne waaw léegi kon ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo war a seddoo te mënuñoo seddoo seenu lim lim defanteeg seen cër yi ñu ne ah trois quatre doom dañoo def tabaayun tabaayun nag mooy ak ñàkk a déggoo dañoo waree lool nga xam ne doo doon génne ka gën a néew muy ñett ca la gën a bari muy ñeent da cay bàyyi benn loolu moo tudd tabaayun ci ni miraaskat yi waxee ñu ne waaw loolu lay àtteem ñu ne boobaa de moom da ngay jël rek limu bopp ya dóor ko ci lépp masalama bu fekkee masalama daa sompoo ni ki fii itam da ngay jël limu bopp yi te bu dee fii mooy trois nga multiplier ko ci neuf ndax masala mi daa sompoo ba ci neuf boo ne trois ko neuf nag muy vingt-sept ñu ne waaw léegi lim bi nim baree mooy xàmmeeti nag kenn ku nekk luy wàllam nga ne ah loolu da ngay seet rek kenn ku ne lu mu amoon ca bu jëkk ba masala mi yokkoogut lu mu amoon rek da nga koy multiplier ci trois su ko defee jëkkër nga wax ko ne ko yow day amoon nga foofa trois léegi nag trois fa trois moom neuf lay doon yaay nga ne ko yow de amoon nga foofa deux muy sulus su boobaa boo ko waxalee deux fa trois bu ko defee mu nekk six su fekkee nag léegi génne nga neuf ak six loolu ñaata lay doon neuf ak six moo di quinze waaw su ko defee nag nga ne maam ju góor ak mbokk mu jigéen day amoon nañ foofa 4 ba lu waxalee 4 fa 3 bu la neexee 3 fa 4 ba tey 12 lay doon rek su doonee 12 ni ñoom tey daañu ko mën a séddoo góor ñaar jigéen benn ndax maam ju góor day am 8 mbokk mu jigéen jël 4 su ko defee kon boo ko dee seet séddoo nañ góor ñaar jigéen benn defe naa ne seetlu nga ne boo seetloo 15 yi nga xam ne mooy bi nga boolee cërub jëkkër ji yaay ji boo ko booleeg 12 yi nga xam ne mooy cërub maamu jigéen meeg mbokkum jigéen bi boo ko boolee muy 27 yi mu wax noonu lay doon mu àggale naa suna jëmi xatat boole li xaajoon si ñett yooyu mu sompal mbokk mu jigéen ma sax mu jëdd cërub maamu góor ma su yokk fa ñu tuddee si séddale jëmi xusaalikam booleem loolee bayna huma seen diggante xala sulusi ci kaw sulus ba laxaa ñeel mbokk mu jigéen ñi wax sulus ñaari sulus ña laxee ñeel maam jigóor gi fa tabi loolu mu daaneele nag wax ne ñaari sulus ya moom la maam mu góor jël benn sulus ba moom la mbokk mu jigéen jël day wane rek ne sin wàll bi nga leen koy séddale tam nekk douze boo ko defoon ñetti xaaj ba mu doon ñetti kaat kon su boobaa ñaari kaat yi te mooy sulusaani ba kon maam ji góor ko jël benn kaat ba moom la mbokkum jigéen jël li ma ta leeral foofu nag mooy lu mel nii moom bu fekkee da ngay séddalee ci machine wala ci stylo nga xam ne nekkoo di topp xeeti saam yi ni ñu koy defee ci téere yi su boobaa moom doo ci am boobu coono ndax te tax doo ci am coono mooy ñeent ñi nga xam ne moom la maam ji góor bokk ak mbokkum jigéen da nga koy diviser par trois rek da ko divisé par trois la génn moom la mbokk mu jigéen ak moom ñaar ca loola moom la maam jigóor am waaw noonu rek moo daal di gaaw yu mel ne nag masala yi nga xam ne daañu sompoo ak masala yi nga xam ne duñu sompoo ak bu fekkee dangaa séddale ba noppi cër yi damm naka lañ koy war a defare loolu lépp moom am na yeneen téere yu koy jàngale am na bu ci gën a jege nag bu ñu wax mat mu rax bi mat mu rax bi ya boobu siiw na ci te leer na ci itam am na nag ay bandi risaale yoo xam ne yu yàgg-yàgg lañu dañ caa juumoon ci menn misaal booba dañ doon misaal li ñu wax ne doom ju góor bu fi nekkee ak borom cër day bàyyi ba cër ya génn mu jël des wa dañoo misaalam foofa ne jabar bu fi nekkee ak doom ju góor nañu waxee foofa da ngay def ñeenti xaaj jabar tegg benn ñettee ci des doom bu góor jël ko waaye foofee mu tudd baatu jabar nag jëkkër la fa war a tudd ndax fi mel noonu bu fekkoon ne jëkkër moo fa nekk moom xam nga jëkkër ndegam doom am na ab kaar lay am bu ko defee nag bu teggee benn doom ji góor daal di jël ñett yee ca des bu doon jabar nag moom ndegam doom bu góor am na ak bu doon doom bu jigéen ñooy amoo sax ñoo ci yemoo ndegam doom xas na am daal bu doon jabar moom juróom-ñetti xaaj lañ ko war a def mu tegg ci benn muy sumun bu ko defee juróom-ñaari xaaj yee des yëpp nag doom bu góor jël ko xawma xawma nag ba tey bande yu am na ñoom déet waaye daal njumte loolu amoon na ca yàgg nañu ko defaraat ci band yi nag baabu jumalin lii buntub ay mbooloo la minal faraidi